laa doon jógee te dee du fi mos a jógee ba dem xob dund yaa ngelaw jaay naa xobu ngelaw yi dund yaa ëpp ba ñu root ñii feebar mar ñee safara lekk ñii géej muuroo ñeneen ñi suuf rob jaale naa jëm muy nelaw moo si dañ koy sant nattu dañ koy muñ on taala diggante borom beeg jaamam yërmande yàlla dana metti ba mu de jaaxal jaamam nee nañ ma waaw el el kuy garabu dee sama xel bu gàtt may na ma mën a lee dee dañ koy waajal jaamu borom bi daf koy ma toll

sara sangu nyanga jamono yi lépp dëgër wow ni xeer saa leen deer nguur gi saale ba jàpp al xayri ci bëgg bëgg a dekk ak talaatay ndeer alarbay jande talaata avenir li ñuy ganneer si taatu braade la ko njiitu réew mi yeew moom frère waxambaane yi tekki jatang yi gàddu caaj yi yee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barakaatu ñu ngi nuyu ñépp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen siyaar di leen màggal di leen damoo di leen tiitaroo di leen bëggee bu wér di leen xamal ni eh, weekend bi laa bëggoon sax daf benn live par rapport ak eh, communiqué bi nga le sinistre de l'intérieur je ne dirais même pas le ministre mais le sinistre parce que ay vrai sinistre un désastre lañ quoi pour pour un peuple pour le peuple sénégalais ay vrai désastre lañ yor ay sinistre quoi ñun ay sinistre lañ Nous, nous sinistre ñun donc je euh, bëggoon a wax ci mais comme j'avais pas assez de temps donc je ne euh, naa profité def ko début de semaine quoi bon amna ben côté bo xamni j'ai pas préféré wax ci parce que je préfère laisser ça ak euh, ñi nga xamni ñoo nek Pastef ñom dinañ tontu quoi ñu nek ci Pastef ñom dinañ tontu et déjà ñom mom <laughs> am ay arguments ils savent poser le débat xamnañ lan moy sens critique et ils savent faire la part des choses donc nous dama là pour ak débat Nous, ñoom yaakaar naa dinañ ko a euh, il s'est juste trouvé que dama dégg ci euh, communiqué bu le sinistre de l'intérieur pondre à 3h du matin un week-end à 3h du matin ça montre encore une fois que nous amuñu ay institution parce que waa ji këram la toog yor un tampon ministre bi taf taf am na en-tête aussi envoyé nako direct donc lool rek bu génnee war nañ ku nek war na mëna a laajte euh, comment ça se fait que ministre bi mëna a pondre benn communiqué bo xamni c'est un week-end un samedi à 23 h heures donc lool lan la mëna a quoi dafa dafa yor bureau kërëm yor fa tampon yor fa en-tête ministère bi wala da ko yor ci ordinateur këram wala parce que à à un samedi à à 23 h euh, heures nga pondre ben communiqué comme ça war nañ une xam ba xam institution institution institution da nga wala yi nga xam da internet bi war nañ ci ci dëkk bi nga vraiment ministre ñëw envoyé ben communiqué n'importe quelle heure n'importe quel moment même le week-end c'est extraordinaire c'est extraordinaire pour un pays comme le Sénégal mais c'est normal aussi parce que vraiment c'est un pays de bordel de merde <laughs> que de bordel de merde rek fay quoi c'est extraordinaire comme si ku ci ay rek rek euh, def ci pondre communiqué à à heures internet bi un samedi euh mais bon dafa am lu wax lu nga xamni man sax ma beaucoup choqué lolou mo tax ma ñëw ne damay wax ak ministre bi parce que limu wax dafa dafa dafa à la limite saaga la quoi daf né dafa génné né euh nit ben parti politique amul droit recevoir ay financement des étrangers ñu gis ni ça fait même pas 24 heures, les sympathisants de PASTEF et les partisans d'Ousmane Sonko ont lancé un appel pour euh, tuddee ko le nemmeeku tour comme Ousmane Sonko ñëw war leen gis à moins de 24 heures nous avons plus de plus de 125 millions donc ministre bi tiit ci nelaw yeewu xëcc benn feuille ak en ministère maanaam une institution de la république ak tampon bo xamni mom peut-être ay doomam yi dañ koy fowé mi ngi biir taf à 23 heures mu sanniñu ben communiqué bu and ak tampon ministère bu and ak aussi vraiment luñu mëna wax ni en tête ministère manam suñuy institution mu utiliser ko ah dem ba tuddee ñu ñun ay étranger parce que des étrangers Nous, ñu nekk ci Sonko amul étranger euh, ñu Sonko c'est des sénégalais pure souche de père et de mère donc ci kaw loolu ma je fa ni daf ñu nous, ñun ay étranger ma ne nag une définition lan étranger avant nous avons ci dire un étranger monsieur le ministre ou bien monsieur le sinistre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité d'un pays où il se trouve. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité d'un pays où il se trouve. Soit comme son père est français, sa mère est étrangère, voilà, son père et sa mère sont sénégalais, du do France ou alors le Voilà wala mu un étranger c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité de ce pays quelqu'un qui ne fait pas partie d'un groupe d'un milieu d'un organisme ou bien qui n'est pas considéré comme en faisant partie un étranger c'est quelqu'un qui est d'un autre pays qui n'a pas la nationalité de ce pays C'est un étranger Je nationalité donc c'est un étranger quelqu'un qui n'a pas la nationalité d'un pays, quelqu'un qui n'appartient pas à la nation où il vit Comme un étranger Nous, ne ci Sonko <laughs> la nationalité sénégalaise c'est des sénégalais c'est des sénégalais de pure souche c'est des sénégalais qui vivent à l'étranger mais ce c'est pas des étrangers c'est des sénégalais qui vivent à l'étranger, mais ce pas des étrangers. Donc, affront Bob la de di laafee xamal ni ministre bi nul à chier comme chaque jour président a ay merde rek la jox parce que dañuy jàppee mbalit respecté wuñ ñu donc ñu xamal ko ni ñun du ñuy ay étranger fii lañ nek ay étranger Madame bu fille génnee fii des étrangers bañ nañ ko ba ay étranger la ñuy woowee parce que dëkkuñu fi amuñu fi seen de nationalité bokkuñu ci seen i registre donc on nous appelle des étrangers mais Sénégal suñu papa nekk fa suñu yaay nekk fa ñu juddoo fa màggee fa yaroo nous ñëw des di daan suñu doole nga nous ñu ay étrangers parce que si ngi jël suñu xaalis qui financer Sonko ça montre encore une fois que on a vraiment de la merde Il ñu té waxal naa len sa su né ni merde boobu ñu jëlé ko fi ñun ñoy am full ñun ñooy am suñu fayda vraiment tagok merde bi quoi une bonne fois pour toutes sinon sinon li rek lañuy am li rek lañuy am. ma ngay xamal ni waaw monsieur le ministre ou bien monsieur le sinistre de la république bananière du Sénégal étranger ngay woy étranger ils envoient 1,6 milliard de dollars par an la diaspora sénégalaise envoie 1,6 milliard de dollars par an au Sénégal Télé ce du samay wax ministre de l'intérieur de l'extérieur euh, ministre de l'économie et des finances à l'occasion euh, d'une journée de diffusion des comptes extérieurs, Monsieur le ministre de l'économie et des finances Amadouba a donné une mention spéciale à la participation des diasporas sénégalaises à l'économie de leur pays. Selon les chiffres rapportés par Mouché Amadouba, la contribution des Sénégalais de l'extérieur, des Sénégalais imbécile que vous êtes vrai domme kharam que vous êtes d'échanger nous nous mu c'est c'est un discours avec des fois askan wi avec football ci s'en xel yi lii yéen donc a les Sénégalais par rapport à leur contribution à la vie économique de leur pays avoisinant, avoisinant les 950 milliards 950 milliards les sénégalais de l'extérieur, les la fofu. de la république les sénégalais de l'extérieur, de 950 milliards cest à dire 1,6 milliard de dollars par an la ñuy fofu. la diaspora est le principal bailleur du Sénégal d'après les mots du ministre Bah, Amadou Bah le principal bailleur du Sénégal c'est les Modou Modou et les Fatou Fatou si le Sénégal dundé, ba toll fii ba wax économie gàcce ngaalaama plus de 125 millions De nañ fofu ay preuves ci moins de 24 heures Sonko extraordinaire donc ministre des affaires étrangères, ou bien ministre de l'Intérieur, ou bien ministre de l'Extérieur, ou bien ministre des ou douces, comme il ministère donc nous avons la population sénégalaise vivant à l'extérieur du pays est estimée à 3 millions de personnes soit environ 20 de la population totale du pays avec un PIB estimé à 13 milliards de dollars donc sénégalais yi nekk extérieur dinañ dugal chaque année un virgule neuf milliards de dollars un de dollars yow nga woo leen ay nitu extérieur Amadou Ba woowee leen ne c'est des sénégalais de l'extérieur Amadou Ba ne yéen Sénégal seen économie bu taxawee c'est grâce au Modou Modou et au Fatou Fatou yow tay nga bugg leen wowe ne ñom c'est des euh ni mu ko mëna waxé ay nitu extérieur lañ bokku ñu Sénégal duñu ay sénégalais wa légui man ma laaj leen ben affaire yow bu ñuy yónnee un milliard de dollars newuñu ay extérieur newuñu newuñu manam ay étrangers

ce footballeur ay étranger lañ yéen doo leen russe quoi c'est-à-dire yéen yéen gàcc du leen rey c'est-à-dire il faut que sénégalais yi ñëw rek bomba claat seen maam yi rek ngeen jógee fa quoi parce que yéen gàcc du leen rey kon yow sa équipe nationale ñu fa nekk yëpp ay étranger lañ parce que ña fa nekk ñoo ñu ñëpp ci kaw bi lañ nekk kon yow tu fais jouer des étrangers donc ñun suñu équipe nationale bi ay étrangers ñoo ko c'est pas des sénégalais ne leen yónnee xaalis ngeen di ko furux 1,6 milliard étrangers 15 du PIB est étrangers Sénégal ça a un PIB PNB ils ont un développement exogène un développement exogène mais un développement qui vient de l'extérieur Sénégal un développement endogène PIB Amoufa, existe. existe Sénégal l'Union, ça vient de l'extérieur boutiques qui fa c'est des boutiques de l'extérieur alal guñuy lek lepp alal gu extérieur la il n'y a pas de développement endogène au Sénégal il y a un développement exogène au Sénégal il n'y a pas de PIB il y a le PNB le produit national brut il n'y a pas de produit intérieur brut amul amul lan lu ñuy au Sénégal lu ñu fay consommer amul gerte gi chinois yi dañ koy de yóbbu defar huile bi indi yónnee yónnee ko jaay ko plus cher etc. cetera et cetera pas gis or bi mos ngeen gis oru Sénégal or de Sabodala kan est-ce yaayam mos a or or bu jógee sabadola kan mo ci mus a beut mus ngeen gis zircon bi mus ngeen gis diamant bi mus ngeen gis pétrole bi donc le Sénégal n'a pas un développement endogène il a un développement exogène tout vient de l'extérieur vous n'avez absolument rien rien du tout musu leen exploiter dara ni ressources, ni minière ou énergétique amul lenn dara ko tous vous êtes un mendiant le Sénégal est un mendiant Qui biir de qui nous tous nous mix, nix mais yow démb ñi bu ñëwé football vous les appelez pas des étrangers Si vous avez ay un de dollars d'étrangers. ay étrangers ce PIB Nous ay étrangers Vous da nga calculer ci PIB bi produit intérieur brut bi da nga calculer économie si leen di def l'indice économique da nga leen calculer la diaspora 1,6 milliard, Nous milliards da calculer du PIB. Matar Ba moko wax euh Ba wax Amadou Ba ministre euh, euh, des finances ngien calculer ni Modou Modou ils xaalis yoni ak 15 du PIB de l'économie du Sénégal après tay ont xëyaat benen ministre bu jógee fële pondre de la merde né ñi <laughs> des étrangers parce que amul benn étranger étrangers des sénégalais ont cotisé plus de 125 millions encore une fois yónnee pour parce que dañ nekk ci éveil de conscience éveil de conscience dafa des milliards Moi, je dis que même 125 millions de millions de il na a un milliard il faut éveiller la population il faut que ñu def ay autour. tour au delà de l'Europe ou bien des États-Unis nous dugg au fin fond du Sénégal Il y a des bêtes là-bas il y a des sauvages là-bas au fin fond partout au Sénégal à Dakar partout l'achat de conscience de bu mu am mooy yeewuñu dëkk boo achat de conscience ça montre que dëkk bi nañ dem Fouta Tamba nañ dem Kaolack nañ dem Diourbel la éveiller la population la population de leen marlolen mar la leen rafle loo leen amuñu lu amuñu de pour nga sa il faut que jox leen lu Lek, il faut que jox leen pour après donc nemmeeku tour boobu au delà de l'Europe des États-Unis feneen ak feneen dañ ko war def biir Sénégal donc on a besoin d'argent pour ça parce que xiifloo ngeen leen askan wi marloo ngeen leen rafleloo ngeen leen ba nga xam ni da ngeen di mujj jël seen jënd seen conscience yi koo leen bëgg mu voté leen da ngeen koy jënd bañ ngeen ko ba da ngeen ne politique sax alal la xaalis il faut nga am il faut nga am alal mais tout ça c'est devant la panique le désarroi loolu kese la da ngeen a jaaxle da ngeen a jommi xamu leen fu ngeen di tek seen tank tànk len c'est c'est triste bo demee ba nga xamné nak da nga paniqué wu tiit ba yow ay 23 heures pondre ben merde ci ci en ministère de l'intérieur de l'intérieur bi nga xamné institution la nga nga jël suñu tampon utiliser ko ministère de l'intérieur tam signé ko sur la merde ça ça mérite vraiment yow waroo amat une minute ci ministère parce que war nga ñu wax à 23h un samedi fan nga jëlee suñu tampon fan nga jëlee suñu en-tête ministère de l'intérieur, ba ci pondre ta merde loolu war nga ñu ko a wax respecté woo ñu joxoo ñu cër te yow amuñu ak yow affaire parce que xam nga ni yow bu dee ñun ak yow la rek barké alcorane do am seconde suñu xamuñu la sax. tu étais de la merde qui traînait partout l'imbécile Macky Sall t'a amené comme ça forcé ñu la ñun bu dee ñun ak yow rek do mus tok seconde suñu suñu ministère xamuñu la on te connaît pas on te connaît pas ñun ñun xam ku ñu yapp ki ñu jiital muy Macky Sall moo ñu doomi xaraam yi génn yëpp manqué ñu respect yëpp mom la quoi mom la rek parce que bukki bu yabee gaynde ci doxine bala quoi yeen da ngeen ñu yapp mais bu doon yow Antoine John yow mi yow yow Antoine ñàkk jom Antoine ñàkk jom yow kese yow kese ñun ak yow duñ am duñ ko séq man duma ma wax sax duma la sax duma ma la xam sax quoi sincèrement duma ma la xam mais malheureusement et eh, dommage quoi Macky Sall moo ñu yàpp lépp moo ñu ko tek billahi saga weesuwul ki jël sa tampon à 23 trois heures jël sa en ministère muy une institution nationale pondre de la merde à 23 trois heures un samedi kooku mo la saga yeen xamu leen kuy saga yeen aussi yeb yëpp bokk na ci ñi nga xam ni seen yi dafa dess parce que xamuñu ku len di saga c'est c'est triste quand même Sénégal da ngay ñëw saaga ko ndey keneen ki di expliquer nan la dafa saaga ko mun na la non bàyyil saaga yow ñoo déedéet kan moo la saaga yow man ki ma saaga mooy ku jël sama institution de la république utiliser ko ci def ko arme de guerre à vingt trois heures un samedi un week nga boo demoon ministère de l' intérieur ubbi wuñu à vingt trois heures un samedi ministère de l' intérieur ubbi wuñu un soir de vingt à vingt trois heures un samedi soir à vingt trois heures ministère boo duggoon foofu doo fa kenn ku dul ay gardien donc cette cette lettre là pondu à 23 h veille fête veille fête nationale maintenant veille fête mondiale 31 décembre je dirais 23 h fi ma 23 h C'est 3 h du matin fii 23 h la Amna peut-être euh, dimanche la ci mais au Sénégal au Sénégal au Sénégal du moins à 23 h ou bien à 3 h du matin nga pondre de la merde mais kooku dala saga nday yo xam nga lu institution une institution la djel en-tête bi fum ko djelé à 23 heures nawuloon ministère de l'intérieur parce que boo fa demee dawee fek mu tëj kon à 20 à 3 h du matin fan la que tampon bi lolou war nañ ko parce que lu dëkk bu baax dëkk doomi xaraam la mu ken mun ci dara on a des arguments pour s'expliquer mais quand tu parles avec un imbécile il faut savoir utiliser les mots appropriés à ces actes d'imbécilité d'ignorance lu nek dafa am tontam yaruñu fi kenn ci ay saga ndey yaruñu fi kenn ci ay manque de respect mais comment ma manque de respect Comment saga saaga ma saga sa parce que ministère doit dafa ma saaga mom. moom dafa jël sama institution utiliser ko pour def ko arme pour guerrer ko dafa utiliser samay institution de la république faut utiliser sama tampon ministère de l'intérieur, moi utiliser sa ministère de l'intérieur, à 3 heures du matin veille fête 31 décembre pour pondre de la merde Bonne saga, a vous un que nga bu vous vous bu dof mais moi, je je me dis que saga institutionnellement képp sénégalais papa yaye, mak, faut utiliser suñuy arme di di ko fan la ko mais c'est jamais vu ça motax le Sénégal mérite des milliards pour ay nemmeeku tour dem len jëli ay psychologue dem len jëli ay sociologue dem len jëli Sonko na and ak borom xam-xam yi nañ wër ci dëkk bi nañ yé askan wi nañ len nañ len nañ len ndox mu nañ ndox mu ñu saw nañ parce que ci ay nalaw rek lañu nek xamuñu sen non xamuñu sen ennemi xamuñu ko leen bañ xamuñu ko leen bëgg xamuñu ko leen di éveiller ñoom xamuñu dara dara dara quoi c'est triste mbéj leen leen ñuy yeewu allez-y financez ça financez leen financement pour mbéj askan wi ñu yaw financez leen pour ñu soti leen ndox mu sedd ñu ñu yaw saw c'est triste et ça ça va passer comme ça et ça va passer comme ça ni ni ni ni ni ni. nii bu Modou Modou bi un étranger Si pour football pour le Sénégal newul un étranger bu vous kër un étranger Si vous askanam un étranger pour financer son goût pour ñu def ay nemmeeku tour ngeen ne un étranger et vous vous pensez loolu dafa war a jàll c'est pas sérieux quand même mais lii lépp tiit la rek dañoo tiit dañoo ragal parce que dafa am lu ñu parti politique Sénégal yépp ci ay lobby la ñu amee seen xaalis ñoom waa APR ci lobby la ñu amee seen lobby impérialistes qui leen di financer lobby maçonnique qui ont di financer l'argent des financements ou l'argent détourné ay fonds la ñuy dundee ay financements la dundee occulte illicite un parti politique qui a le sac la ñuy dundee lobby yi la na avec l'argent des Russes

n'est-ce pas doxuñu ci l'argent sale yow lañ jàpp monsieur Macky Sall ak sa député Bougazeli ak faux billets nga libéré ko des milliards de faux billets députés. député yow lañ jàpp sa député yow Macky Sall ñun japp ñu suñu député de yow lañ japp ces députés bo xamné ne yow boo fi tegee ñun xamuñu ko sax Bougazeli ak ay milliards ces député yow c'est l'argent sale dans ton parti l'argent des lobbies dans ton parti, l'argent des impérialistes dans ton parti, l'argent des fonds occultes, tout ça dans vos partis politiques. Comme nous sommes pour changer le système, nous avons l'argent des lobbies. Parce que nous avons Ousmane Sonko de faire les lobbies maçonniques, les lobbies gordigés LGBT. Et nous avons cette parti. En 2012, j'étais là-bas. En 2012,

ak ay mannequins Gali di jabanté monsieur eh, deuxième tour obélisque meeting def j'étais là-bas il y avait plein de góor Nous ñoo xamni yow Macky Sall yow lañ andal lolu sumay Ils ont ci ay ak ay mannequin def gang dugg ci fofu suñu kanam la ñun gis j'étais là-bas devant moi c'était devant moi donc nous, tu yow donc tu reçois des financements des impérialistes monsieur Macky tu reçois des financements des lobbies maçonniques et LGBT Gordigeni. M. tu reçois l'argent sale issu des blanchiments d'argent de Bougazeli monsieur Macky tu as reçu beaucoup d'argent détourné monsieur Macky budget de l'État tu le détournes à ton profit les fonds, les financements occultes, les caisses noires, les fonds politiques. Yo, tu n'as absolument rien à dire à part fermer ta sale gueule. Diom, Nyaku Djom. Félix Nyaku Djom. Antoine. Tu dois fermer ta sale gueule et sache que les Sénégalais, pas nañ a ñu yeewu ah ñu en moins de 24 heures plus de 125 millions bu ngay pays PIB dugal ko ci PIB loolu indice économique la dugal ko ci PIB bi des jeunes rassemblés en moins de vingt quatre heures ñu dajale plus de cent vingt cinq millions kooku kay ndam la yokk ko ci sa PIB comme yow amoo PIB dëkk lëmb amu leen PIB lu ngeen di lekk lépp c'est exogène lu ngeen di naan lépp c'est exogène sa ndox France ko moom sa say ressources naturelles France kay jël yóbbu sa total France ko moom c'est une grande surface France comme moom yow lo am yow lo am ce PIB 15 ça vient de l'extérieur c'est des Sénégalais de l'extérieur la diaspora ñokay envoyé donc kay kon a Amadou Ba di nga kontaanaat légui au moins en moins de 24 heures pour bu mel nonou ay jeunes sénégalais dajale plus de 25 millions dougal ko Sénégal envoyé au Sénégal donc légui ci indice bi la bok machallah te yokku parce que l'économie au delà de parler avec cet imbécile là de ñàkk jom day dimb parce que pays pays ren sax en moins de 24 heures les sénégalais se sont rassemblés dajale 125 millions de ko ont arrêté là. la gars des gens très déterminés on appelle ça l'autonomie rationnelle L'autonomie rationnelle si demee livre dans la conscience citoyenne responsable am na l'autonomie rationnelle moom mooy lii jeune yi def c'est combattant c'est patriote sénégalais li ñu def nii boo demee euh, l'autonomie rationnelle un développement endogène c'est vraiment de signifier la conscience collective patriotique la capacité à penser et à réagir. Tac, dañuy xalaat benn affaire tac réagir ces ces jeunes là non ils méritent vraiment les pouvoirs de la république ñii ñoo mérité ñu jox leen suñu place yi. parce que sama papa da ko doon wax nee na alal dafa sax ci xol nit bu koy génne te amu ci benn intérêt nee na kooku jël ko fal ko alal dafa sax ci xol yàlla moo ko def nit bu koy génne te gañewu ci dara non kooku lum la laaj jox ko. Ni ont mérité ni les les 125 millions en moins de 24 heures ils méritent des ministères ils méritent des places euh, à l'Assemblée nationale c'est des vrais guerriers patriotes niño vraiment c'est ça qu'on appelle la euh, conscience citoyenne responsable la conscience collective c'est des citoyens valeureux des citoyens pleinement actifs, y ont une capacité d'action significative et vraiment qui doivent être soutenus et reconnus et moi je le reconnais ça Ça me drame de d'autres du rire, ba ça me leen d'autres c'était extraordinaire c'est-à-dire dama yewu tak ma gis man gëmeewu ma ko sax premier jour bi buma xolé go ñu ne ma gaay dajalé nañ 125 millions dama ne damn c'est pas c'est pas possible dama togat man buma yew wala ko gis ci internet bi taf ma gis ko dama jaxlé donc ces jeunes là dajalé nañ 125 millions en moins de 24 heures tek ko ci table bi té laaju ñu poste laaju ñu dara mais ces gens là non machallah machallah macha bo leen amuloon ma créer leen quoi yéen nag yéen yéen laa man gëm naa ni réew mi dina changé ndax yéen man gëm naa ko man musuma gëm ni ña fa ne ak merde ba fa ne ak imbécile yan fa fal bu doon ñooñ rek duma gëm ni damay gëm ni torox rek la ñuy def mais yéen wan ngeen ma lu war a tax ma gën a gëm ni wallahi billahi bu leen yàlla rayul ngeen nekk fi barke alxuraan réew mi dina changé il faut ngeen rayante ak imbécile de parce que tamit imbécile yi dañoo taxaw de imbécile yi amuñu argument amuñu dara làmmiñ lañ yore ak soxor

ñi lay mat ci digg jung junqóob ak yeexaayam ak yëpp nga jël ko bor ko pour daw ak mom mu lay mat da lay donc il faut ngeen xamni préparez-vous pour xamni au delà de imbécile yañ fa fal amna ay imbécile yi len fal te imbécile ya fal suñuy frère lañ ak suñuy sœur yi yeewut nak ku la ci gëna dof nga ne ki la ku la ci gëna ñak nga ne ki la ka cey nalaw di di di wax di waxtu nga ne ki la donc il faut que nous nous il faut que nous ñu réintégrions. il faut que nous ñu prise de conscience collective travailler euh, sens cognitif parce que nous, on n'a pas affaire à Macky Sall Depuis vous j'ai joué, mu Félix pour préparer troisième mandat parce que le vrai sale boulot Félix ñàkk jom moo pare pour jouer parce que Ali Ngouille Ndiaye amoon na hésité que lu ragal malgré qu'il était là-bas mais Macky Sall il avait besoin d'un sadique d'un criminel d'un criminel qui tourne pas boo xam amul hésité le sale boulot poum il va au charbon defal le sale boulot bi il va au charbon direct donc loolu moo tax mu indi ko ils ont éliminé Khalifa Sall ci mafia ils ont éliminé Karim Wade ci sais mafia kenn le ce Qui kenn ce C'est pour ça que en tant que bouclier humain pare pour joxe seen Nous nañ un pour qui pour jox suñu bakkan fait buñ fekkee ont bëgg Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko train de se faire. ils ont enterré Khalifa Sall ba vous élection deful dara suul ko ci la ils ont enterré vivant Karim Wade déporté mu dese kenn mu Idrissa Seck ñu jënd ko seen kenn kessé le farouche le farouche combattant le farouche opposant c'est Ousmane Sonko wëri nañ alal jappu ñuko. wëri nañ kër jappu ñuko. wëri nañ ay détournement jappu ñuko. Légui nak xamatuñ jëm ñu il faut il faut l'éliminer ñu fi nekkoon ñëpp daane nañ leen boy bi waruñu mun a il faut l'éliminer coûte que coûte donc ay ballon de sonde lañuy sanni en attendant ñuy xool nan la def pour éliminer ces jeunes là sinon de mo dinañu daane de day mel le pharaon ak Moussa ak lu muy ponkal ponkal Moussa ko fa fekk wadal ko donc le pharaon Macky Sall Ousmane Sonko moy Moussa moko nara nar donc ils sont là pour teg seen i alibi ak seni seni deal seni mafia pour xol nan lañ ko éliminer

askay <laughs> non Pastef dafa extraordinaire maa ngi doo ko gis bu mu juddoo ba léegi Sénégal ay partisan wu parti di dajale seen alal di ko jox parti bi musul am élément wu Xalifa Sall ya ñëwoon yëpp nga gi mooy jigéen yooyu naan ay talaataay ndeer dañuy def taatu neen su meeku bu ñu laalee Xalifa Sall ku nekk ñëw ratatati ñu jàpp Xalifa Sall tëj koy at ken deful dara parce que ñoo luñ lekk rek lañ té Khalifa Sall donc warax partisans de la moindre effort lañ ay partisans euh, ni digestif. on appelle ça des partisans digestifs man type digestif rek mo leen fa indi Macky Sall loolu la am depuis que Dieu existe mu parti bu am ci Sénégal bo de nit yi dañuy ñëw ak seeni ak alal ak ba sacrifier papa sacrifier yaay mu ñu ne dama ko ci parti pour la bonne marche et une prise de conscience collective Pastef moko musa am vraiment Pastef boo un ñi créer ci askan quoi siggil ngeen man de dem ci Sénégal amna parti bu tuddu Pastef bo xamné ay nitam cotiser. ay nitam ñoo leen di jox lu ñuy lekk maanaam kuy ñëw xam nga Pastef dañ ko dañ ko tubaab rek gis nga tubaab ma waxal la benn affaire waaw c'est des partisans alimentaire gis nga tubaab bu la invité anniversaire am booy ñëw sax da indaale looy joxe pour lekk wala yaay financé loolu mus na ma dal Espagne mus naa dem ñu invité ma anniversaire sama xarit keuse ñoo doon ànd di football def lépp jël otoom ñu dem ba fu ci montagne bi restaurant tout anniversaire ma lek ba sañu biiri fess tout nice ñu indi not bi ku nekk fay ñu may xaar pour ma fay man ma ngi toog rek ak sa affaire Sénégal 2010 tégalé tank nak di ré yor sama kiir da samay kiir da foog ne toj ma ray gay daga <laughs> waji na ma mais alors gënal <laughs> sa carte nga fay ma ne non non ma len mais fayu leen ma ñu ma non <laughs> luñ la ma ah bon ñu ma ah, ok kon man ma wara fay ma ne ah kon grand bàyyi ma ñëw fay ma fay mais affaire bi dafa ma choqué même néeg bu néeg bi sax néeg boobu noonu ma woon hôtel ba sax maa ko fay mais ma ne mais comment c'est la première fois dans l'histoire ma ñëw ci ab anniversaire ñu invité ma ma fay néeg ba fay lekk ba fay naan ba fay lépp ma fay ko mais ma ne kay bu ëllëgee bu leen ma wooti bu leen ma wooti ci anniversaire Sénégal doo gis kuy sa tubaab noo ko invité invité buy ñëw dina la indi benn whisky wala indil la benn butéelu coca wala indil la benn butéelu Sprite sénégalais bi ngay invité moom ay ŋaamam la lay indil ay ŋaam yoo xam ne boo boo deful ndànk toute la journée la foofu la nar a añee nar fa reeree nar fa ndékkee lépp da ko narul dóor benn yoon sénégal ngay invité nit anniversaire mu ñëw indil la biir bu vide bu wow kong bu gas ba mu xóot ak ay ŋaam yu rëy taxaw di xaar nag palaa yi lu ñuy teg musique bi dégluwul lu ñuy fecc talu ko lépp ma ngay xaar rek mi ngi yëndu mi ngi xeeñtu ban xeet moo war a ñëw ban xeet la lan la togg lii lan la mbaadu ay spaghetti mbaadu mbaa ndawal gi bëri na mbaa mi ngi xeeñtu lu muy fecc ak lu muy yëngu yëpp biir baa ngi na di xaar lan la fa war a mun a lekk billaahi doo invité mukk Sénégal anniversaire nit indil la sax benn mbiskit noonu la mel li nak nasaraan yoy nonu dafa melni dañu jangal boy boy nek nekk bitim réew mooy macha allah booy dañu am experience ñom ñoo bok ci parti c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu bok ci parti jël seeni alal ñom bu to xep indi ko xep ko ci parti bi est-ce que waay cooy Pastef boo amuloon ñu créer la dé yéen créer ngeen way dañ leen war di way billahi wallahi dañ leen war di way yéen ay ndaanaan ngeen ay soupe dupe ndaanaan ay soupe dupe ndaanaan international

yéen local yi ngeen nee na moom yéen local yi ngeen taxawaale ngeen fa nekkee ko wëndaalu ñun ñooy étranger yi donc étranger yi ñoom bu ñuy ñëw saa yuy ñëw yéen daal étranger yéen saa yuy ñëw rek indil leen yéen ay yéen a dee yéen ay torox yéen lañuy yéen a yor gouvernement yu bon mais saa yuy ñëw rek dimbale leen kon yéen bu lu woon étranger yi ngeen torox di mais c'est extraordinaire lii lépp na xam lu muy wone la conscience sociale loolu rek lay woné lu ngeen wara def yéen monsieur le monsieur le sinistre de l'intérieur moy ngeen travailler pour permettre aux jeunes d'exercer et de développer leurs compétences de citoyens responsables créer un cadre de vie parce que élément Ousmane Sonko wonawun fi lu cohérence ah, ci un engagement motivation à poursuivre et à réaliser leurs objectifs spécifiques. Avec l'aide de personnes, on appelle ça un développement endogène. Merci M. Sonko d'avoir appris à tes partisans et sympathisants c'est quoi exactement le développement endogène. Merci Ousmane Sonko. Sincèrement, Ousmane Donit. Ousmane, dang ma jaaxal quoi. Chaque jour je nga éducation ba ngay def ci say élément man man xana c'est artificiel xaw fumuy jaar xaw fumuy jaar c'est réseautique sa wax wul mais sa yo génnee ben yon jangalé aduna ak li ci bir bu sa élément yi dama ay armement yo xamni c'est <laughs> c'est extraordinaire <laughs> non monde bi Sénégal mi ngi développer ci ben niveau bo intellectuel bo xamni tous ces gens là viennent de Ousmane Sonko bop bop bo gis Macky Sall la àndal bopp xar bo gis Macky Sall la àndal bopp bëy wax mbaam xuux boo gis Macky Sall la àndal mais ñuy développer sen faculté cognitive non ko ci gis rek il est Ousmane Sonko billahi wallahi man boy dañ ma jaaxal man xum nan la communiquer ak Ousmane Sonko c'est étrange mais c'est est extraordinaire dem ngeen ba di di secouer une république ministre buy tëb ci trois heures du matin yeewu ci nalaw daw xëcc benn en-tête en-tête bu ministère xëcc tampon tamponné bind ay conneries ba tuddee ñu ay étranger léegi ba def ñu ay étranger ba jël Ousmane euh, jël Sadio maane def ko étranger jël footballeur yëpp nekk ci kaw bu étranger léegi alalu dégg alalu étranger moo tabax hôpital parce que Sadio Mané Bambali hôpital boobu noonu alalu étranger la alalu étranger la comme <laughs> ministre bu étranger la ñu wooyee léegi hmm? mais comme bopp yabooy lañ yor ñu ñu àndal yëpp ay bopp yabooy lañ yor ay sompat c'est triste na gis nga chaque jour mooy lu ma leen di wax rek yéen xam leen ñan ngeen war a waxanteel ñu nekk ci nguur gi ay yabooy lañ ay poyka ay jënu yax lañ ñañ àndal tamit seeni élément ay yabooy lañ nee naa la dinaa dund ba yàlla ma yàlla may gudd fan ak wér ak yéen nit yéen waa Pastef yéen laa koy ñaanal de man yabooy moom du ma ko ñaanal gudd fan bopp yabooy moom vraiment bu deewoon tamit moo moo doon gën a baax mu dund bopp yabooy bopp mbaam xuux bopp bopp jën bu nëb ñooñu sox sox ñun soxlawuñ leen yéen waa Ousmane Sonko yàlla leen yàlla may gudd fan ak wér yàlla leen yàlla sàmm aar leen taxawu leen parce que éléments yi mel ni yéen dañoo war a yokk yéen am ay njaboot njaboot yi ngeen yar leen aussi ci patriotisme ci nationalisme ci aussi autonomie rationnelle ngeen yar leen ci ci ni ngeen mel ngeen yar leen ci yàlla seen njaboot mel ni yéen ñu bëree rek dañuy mën a xeex bopp yabo yi ak bopp jën yi bopp poyka yi yi nga xam ne ñooñu ubale amuñu xam-xam amuñu dara buñ ñëwee buñ la saagawul mënuñu indi benn argument parce que ñoom seeni élément ci lii lañ leen di dundalee gis nga mënoo jël sa doom di ko dundal ci lu foo lu xaraam nga bugg mu gémmiñ bi di génne lu baax wala xel mi di xalaat munul ne ñoom seen partisan yëpp ci caisse noire lañ leen di dundalee Macky Sall ay partisan am yëpp ay sympathisant am yëpp ay élément am yëpp ci caisse noire la leen dundalee moo tax ku ci génn wax rek nga ne ay xuxuxu ta mbay saa yu élément Macky Sall génnee muy sam muy ku ko bëgg muy sympathisant am muy partisan am saa yu génnee kuy ànd ak moom muy ministre muy député muy ko ko fan saa yu génnee wax nga ne cambay xamul tax parce que duñ leen dundalee lu lew bu dee ku nekk APR caisse noire lañ koy dundalee mbàq bi yëpp caisse noire a fa ne mbàq bi yëpp fonds politique a ne mbàq bi yëpp alalu lobby góor jigéen yi a fa ne ak alalu franc yi mbàq bi yëpp alalu impérialiste yaa ca ne bi yëpp euh, l'argent sale mooy wur yi ci biir biir bi ak l'argent détourné financement occulte avec ay fonds illicites donc comme elle non ça va. nous argument mbàq mi caisse noire fonds politique argent illicite financement argent sale mais nan <laughs> dara du ci ne dara jamais d'argument jamais jamais au plus grand jamais mais vous dundee alal là law kooku saa yoo ñëwee sa gémmiñ loo wax day law moo tax booy Ousmane Sonko élément Ousmane Sonko saa yu waxee rek nga ne ës kay saa yu élément Macky Sall waxee nga ne cambay cambay uxu parce que amul argument bu sa biir biir caisse noire biir biir boo xam ne lu fay wuri wuri caisse noir la lu fay wuri wuri fonds illicite la lu fay wuri wuri fonds occulte la financement occulte lu fay wuri wuri euh, l'argent sale la lu fay wuri wuri ci biir biir bi l'argent des lobbies la <laughs> mais kooku mënul xalaat te du mës a xalaat

Félix nous sommes ñun duñ sa morom ñun sommes ñu ko yow yow xam nga ni yow bo amé fitu tok Sénégal ñi jox ministre xam nga sénégalais la c'est-à-dire ñun ay ni yi fay ñun xamuñu violeur Qui le, qui agresseur qui détourneur de deniers publics qui keneen des faux usage de faux qui argent sale c'est-à-dire vous êtes des sinistres

ñun ay gor lañ yow ab imbécile nga ab jaam nga rek do nitu dara sal bulo lañ lay yoni nga def mais fi ça passe pas gis nga nu nga def khalifa sall sa papa Macky Sall gis nga nu def khalifa sall gis nga sa papa num def sa bay num def Karim wad ne ko mu ñew jëm ko def Ousmane Sonko yow lañu yoni ngay dof dof lu mais sa bay yow Ousmane Sonko sa bay Ousmane Sonko bayam Antoine Félix ñàkk jom sa baay Macky Sall bant bu gudd lay laalee Ousmane Sonko. yow nak lay dof dof lu di la yónni bu la nyu ñëw rek ñu ñu ñu wàcce la boy ñëw ñu ñu la boy génn rek ñu sul la dof dof lu rek ba laal ko dof dof lu rek ba jage ko. nga nan ay da ngay dissoudre yow seen kër sax sa force du sax mëno ko dissoudre nga da ngay dissoudre ay parti ngay menacer bant koo mun a dissoudre yow sa foofu kër sax mënoo ko dissoudre yow sa biir kër sax mënoo ko dissoudre nga ne da ngay kaay ñëwal ñëwal boo ñëwee léegi-léegi billaahi wallaahi ci ay seconde gis nga nuñ dajalee ci seconde cent vingt cinq millions ci ay seconde billaahi ñu suul la ñu suul la léegi defal la rest in peace say morom yi fa jaaroon am nañu rest in peace yóbbaale nañ ko boo dof dof loo léegi ñu noqal la rest in peace bi yéegi yóbbul la duñ la yóbbu almeeri Yoff parce que Yoff ay gorong yow yow ci ci sëg ma lañ lay suul mbëbës dañ lay noq reesin piis yóbbu la mbëbës mbëbës lañ lay suul yow parce que yow mbëbës nga mérité mérité ci armel yi si cimetière yi am na ñu baax ña fa ne doo dem jaxasoog ñoom imbécile de merde mbëbës lañ lay yóbbu suul la fa dóor la reesin piis sa baay ñimewu ko moom Macky Sall sa baay ñimewul loolu yow lay yónni ñëwal ñëwal di nga xam ne ñu déterminé nga fi fekk di nga xam ne ñun duñ ay élément ay khalifa sall yoy na ah dina ñun ñi bu ko laalé dinañ def taatu neen ñun ñëpp génn sañu yaram yi sañu ween yi fi ay yi ala bi né dé jigéen yi sax ay combattante lañ dañ naan la ñëwal duñ ay ñëwal eh, bo fi ñëwé dinañ rat say dayu mam laa la wax yow yow félix antoine ñak jom bo ñëwé dinañ rat say dayu mam man ma la ko wax ñëwal togal fofu di band banduloo loko weyi weyi loko gi <laughs> damal laaj ñe fi jitu won damal nga laaj ña fi jitu won ñe fa jitu won don dof dof luñ leen def ñom ñëpp lañu ratt seen day maam nokku leen roy seen bis ba legi seen mbokk ya nga fa dem di leen di ñaanal te safara lañ jëm depuis quand vous êtes financé par des lobbies étrangères avec l'argent avec de l'argent sale hmm? avec vos financements mal propres APR dañoo amoon gat un financement yëpp mi ngi l'argent sale l'argent des lobbies étrangers hmm? Benno Bokk a fii que la Lamine Diack financé de l'argent sale Vous avez ngeen am lu ngeen di wax c'est l'argent des caisses noires des fonds politiques des derniers publics vrai sinistre ngeen quoi ay eh, vrai sinistre c'est triste mais nag ñu ngi leen di xaar suñu wax sax bëriwul dangeen ngeen fiy jóge de dangeen fi jóge de ay jeunes yu déterminé lañ am dangeen ngeen fiy jóge de allah kulli àll da ngeen fiy jógee indi leen ku leen neex Macky Sall yow boo yaakaaree ni Félix Diome mii <laughs> mooy tey ba nga mooy tax nga am troisième mandat fii <laughs> ñëwal ñëwal yow lu lay yoon xamoo ko sax billaahi Macky Sall xamoo lu lay yoon wallaahi la azim xamoo lu lay yoon boo xamul li ngay li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot ay Macky Sall boo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot loolu rek laa lay wax nga bàyyi ci xel nag bu baax a baax yow déjà Macky Sall baayam ci pauvreté la toroxee ba dee yaayam ci pauvreté la toroxee ba dee léegi fa Macky Sall fu mu jëlee ay alalam bërki démb gis nañ fii seeni seeni ministre yi ngeen def ministre tey démb lu euh, mu tuddi Mame Mbaye ci ci giri giri la taxoon assemblée nationale ku ko gënoon torox amut léegi ban cotisation ngeen am yen cotisation ñan la wax leen ma comme APR amul benn lobby maçonnique bu ko financé léegi wax leen ñu seeni financement seen huit milliards foo leen ko jëlee déjà c'est occulte parce que a Sall nee na moom huit milliards yi ay fonds taïwanais la boo xam Macky Abdoulaye Wade ko may doomi xaram weesuwul foofu un imbécile weesul foofu mu ne fonds taïwanais yi moo ko jox sept milliards sept milliards de francs CFA lu day ni sept milliards mu ne dañ ko ko may sept milliards laa la wax de ki waxul un million waxul deux millions sept milliards de francs CFA des fonds taïwanais nee na dañ ko ko may ñi ne sept milliards ñi ne huit milliards ñu ne dañ ko ko may <laughs> xam nga man un partisan un élément alimentaire un un élément alimentaire parce que man parti dunduluma man damay n'est-ce pas Je tonton teg ak nit bo xamni xamna ko yorut il est dans le maquiste di défendre Macky Sall du am jotam man ñi may ñi créer développement endogène ñi nga xam ni à partir de ak seeni moyens du bord lañ fexe fexe fexe ba créer n'est-ce pas un développement Wade sax wax na ko neen day fen may ko ko Macky Sall fen rek lay def addunaam yi da koo fen loolu moom jarul sax di wax Macky Sall fen rek lay def addunaam yi da koo fen il a menti toute sa vie toute sa vie loolu Wade waxoon na ko Arona Dia xanaa ñun dañ ko fàtte Arona Dia étranger la Burkina Faso la newoon Wagué dañ ko fàtte xanaa Baydi Kane Congo xanaa ñun dañ ko fàtte Ablaye Demba si Congo ñaata million la joxe hmm? Mamadou Sy bu newoon Gabon ñaata million la leen jox Amadou Kane Congo ñaata million la leen jox Aliou Ndaw Congo ñaata million la leen jox mu Mamadou Gassama États-Unis ñaata million la leen jox Sadou Kouro Congo ñaata million la leen jox xanaa ñun duñu ay ñii duñu ay étranger hmm? ay ressortissants yi nekk ay ñoom Matam ak yooyu dañ ne ay Congo ay Gabon ak yooyu newoon ci dilu or beeg jamaa yeeg yooyu ñaata million lañ leen jox da ngeen am lu ngeen lekk koo xam ni bàyyam ci pauvreté la dee Macky Sall da doon loué ab néeg foo leen jëlee seen alal <laughs> waaye yéen yéen c'est que suturaal leen seen bopp ay sàcc yi sàcc sàcc sàcc génn naa wuub sàcc yi xanaa da ngeen foog ne waa koñ bi xamuñu suturaal leen seen bopp suturaal leen seen bopp hmm? c'est triste Youssou man man nag je ne suis pas issu de Youssou bu nekk APR doon rap Youssou man je ne suis pas issu d'une famille pauvre mon papa c'est un directeur de de la Sénélec c'est aussi un euh, ku yor ay projets yu bari la hmm? c'est un commerçant un très grand commerçant yor ay oto yu def ay commerce dem fu ne loolu yob ma yóbbu ay Fuuta yooyu moo ma yóbbu ay Labakéré Mali Embere Pitta ay millions yi millions yi millions yi laa man sama me ay étage étage la buntu kër gi ba ci ba ci biir lépp clim la ñu dem sama kër xam nañ je ne suis pas issu famille pauvre ci alal alal kese laa juddoo mais yow ñëw naa sa kër sa kër damaa xuus ba dugg si biir kër gi Youssou sa kër bu ma fay ñëw di la set si maa yaa ngi fàttaliku ba fekk fa euh, mooy élément wu Macky Sall bi dama bàyyi léegi dama xuus ba ci biir kër gi bu ñëwee itam bu ñu <laughs> bu tegalee lekk bi gis nga ceeb xor doj ceeb bu woo kong amul Lalu ko sax man c'était la première fois ma lek lu mel non et c'était la dernière fois amo liguey yow jango déjà mëno bind yaa ngi APR mëno bind français bu baax mëno ko bind yusuf man xamna mëno bind français bu baax bo bindé bu ma gisee sax nga poster lu baax sax lu am lu baax tout rek dañ la ko bindal barké alcorane jango yow jango école mëno français bu baax mëno bind Muso am liguey da nga don taxawaalu nga né rap ngay def te c'est ici d'une famille très pauvre yalla len yalla yeureum te dimbale leen très très très pauvre Macky Sall moo tax nga dem ci affaire politique dërëm boo am ci alalu sàcc la dërëm boo am alalu sàcc la alalu caisse noir la alalu fonds politique la alalu détournement de deniers publics la yow alal goo am tey bu ñu la saytoo noq la ci kaso bi man bu ñu ma amee alal bu ñu ma saytoo duñ ma noq ci kaso bi man sama papa koo am dégg lu ma la magasin wu xaalis suñu kër magasin wu xaalis paanu ay de suko dugal ci dugal ci ay ay lu tur tudd bam fess tep tep tep may jang nag xale bu ndaw dugal ko sama poos ba munuma dox di di njaaba di def ni récréation ma dajel élève yëpp jëndal leen mars maire yi jaay fofu lepp ma jënd ko bam jeex tak ñu jog dem seen yoon <laughs> man kay sama papa ku tuddu turam xam nako ku tuddu turam xam nako mais tu ici d'une famille pauvre très très très pauvre tay da nga dem ci Macky Sall accepté na la ko parce que lo lek nga wut élément alimentaire nga

jël doomu Abdoulaye Wade noq ci kasso bi jël Khalifa Sall noq ci kasso bi hmm jël Khalifa Sall noq ci kasso bi loolu nak système yoy nonou lañ ñun lañ jox pour xex te allah kulli al xamnañ ni vous êtes prêts parce que seen dund sen lepp ci loolu ngeen ko wër mais ñun dañuy jox pour xex leen il faut ñu xex leen nak ngeen bal ñu suñu gaay ngeen quoi mais il faut ñu xex leen il faut ñu xex leen non li nga ni def pour la parce que dafa am ñu Sénégal nous c'est des éléments alimentaires sen pour yépp luñ lekk wër luñ lekk kuñ top rek dañ ko wër pour ko comme ay dëmm ay dëmm bu ñu wax dëmm ñoo ñoy dëmm yi ñu amuñu profession amuñu dara bind français bu baax mënuñu ko lu ñuy def mooy topp parti politique yi dajale nit yi achat de conscience ñu jox leen benn cent mille ñu rocc ci cinquante mille jël benn cinquante mille bi séddale ko juróom-juróom fukki dërëm fukki dërëm ñoo ñu am lu ñu lekk lu ñu naan ñu dajale leen seen carte d'identité yi bind ay liste ñoo la ñuy dundee c'est-à-dire loolu a jeex loolu dafa war a te loolu pour mu jeex il faut ñu affronter leen ñoom noonu la ñuy dundee da ngay gét benn yuusu bii nii yuusu rapatak loolu lay dundee amul liggéey amul xëy amul gontu munul français bu baax musul jàng jàngul jongul ay naloon dawit day dem dajale ay feuilles ñu jox ko francs Timbo Abdoulaye Timbo bi imbécile Abdoulaye Timbo l'imbécile de merde bi nga xamné bu c'est grâce à Macky Sall parce que c'est le cousin de à Macky Sall Abdoulaye Timbo dajale ben bi nga xamné daf jël 1 million détourné 1 million jox ko un Yus. bu sonn bo musul gis 1 million musul liggéey musul gor musul bu mais kooku day jël un million yi day jël six cent mille yi bokk ci poosam jël quatre cent mille yi dajale waar waa ginnaaw raay bu leen dajalee jël seen tur yi soxla mooy carte d'identité kese jox leen ma seen carte d'identité yi wala mu wut mu wutal leen ay carte d'identité moom ci boppam jóg wutal leen ay carte d'identité jox leen ko jox leen ko ci nekk 1000 francs wala 500 francs jour boobu mu ne ab Abdoulaye Timbo jox ma benn camion. ma yeb leen ci am na ama dajalal naa la luuma xar ay luuma xar la dajalal naa la cinquante luuma xar dajalal naa xar yi nekk caaro doon taxawal yëpp takk naa leen buum say buum parce que Abdoulaye Timbo da lay jox ay buum ne la xar boo daj takkal buum bi mooy cinq cent franc bu mu koy jox un million yi waa ji détourné na six cent mille six cent mille quatre cent mille yi mooy bu mu jëndee buum yi muy takkee xar ya buum yooyu lay jël rek dajale xar yi taxawaalu caaro yëpp mu lonk la buum 500 francs am na am ngooñ 500 francs lonk la buum xëcc ngooñ 5 bu demee ne Ablaye Timbo dajale naa la mil xar yoo xam ne say buum yëpp laa leen takk jox naa leen ku ci nekk 500 francs ñi lekk nañ ngooñ ña ngay lekk ngooñ takk naa leen sa buum mu ne la indil ma ko jox la benn camion ñu yab leen ci luuma la Sénégal noonu la dundee gars yi ñu yab leen ci camion yi yore seen i mbiib yore seen xar yeeg bëyee fa ne de na lépp luuma la da koy yóbbu ci Timbo la ko yóbbu bu ñëwé estade ba estade bi luuma la seen papa nak ba mo fay wacc Macky Sall nak bi moy taxaw fofu wara fasiyene wax ak xari ak beuy ak mbaam xux yi ku ci nekk da ngay indi sa sa gangor la nga dajalé ci boom ci ay xar donc boba yusu day ñëw jox ko timbo génn ci tumboo bu démé du né yusu dé day dem né man ma indi Macky indil na la 500 xar ñi ngi ni ñom ñep samay boom samay boom xolal sama xamé leen samay boom dañ ci boom yi sax dañ koy xamé man samay boom yu rouge la yoré kenn boom yi verte Macky Sall bu ñëwé Timbo ñëw indil ko ay buum yu rouge ne gis nga ñii képp koo gis buum bu ñu takkee buum bu rouge rek man man Timbo maa moom indil naa la mille mille xar yu yoo xam ne takk naa leen buum yu rouge keneen ki tamit ne la indil naa la cinquante yoo xam ne buum yu verte mais loolu lañ jóg pour xeex ay xar lañ ay xar lañ ak ay bëy ak ay mbaam dañoo jóg pour xeex loolu qu'on soit clair on est prêt pour cette guerre la on est prêt pour cette guerre parce que xam nañ ni yéen da ngeen di manqué ay compétence da ngeen manqué ay substance cognitive sen Donc, yi dara na wuti donc ñu ñew di leen dañ leen di Nous ci ay xam-xam ñu leen ci xam-xam parce que bu doon xam-xam kessé duñ toog ak ko yeen da ngeen ñi takal li lañ pour xex donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui ont participé ci cagnotte bobu nga xamni dajale ngeen ko moins de 24 heures continuer comme ça au moins Sonko gatcha ngalama yalla dimbale na la del sante yalla sa suné yalla may na la nga am ay nit yi nga xamni ñoy indi sen alal sen ñaq di la ko jox di cotiser sincèrement Ousmane Sonko li musul am Sénégal musul am APR lepp da ngay gis ku indi 1 million Arona Dia bu mu <laughs> après dafa day day am ay poste politique day am ay financement day gagner ay marché yow amul kenn ku am fitu ñew na dalay jox 1 million ne ne après bu bo gagner man ma am marché bi wala man ma am place bi nga joxal mako wala nga liggéey bi la soxla c'est la première fois dans l'histoire mo am ay élément yu jóg def lolu n'est-ce pas suñu Elle def c'est la première fois mu am vraiment respect à Ousmane Sonko donc euh, monsieur Antoine Félix ñàkk jom deuk bi am li nga xamni Macky la fal yow ñun la mais ni Macky bu vous dina la wax ni suñu bi sécurité yow mii di ministre de l'intérieur ngir yalla dimbali ñu ci sécurité parce que li du débat amuñu sa jot sax sécurité suñu dëkk bi dañoo soxla sécurité suñu dëkk bi dañoo soxla set suñu dëkk bi dañoo soxla mu leer chaque jour ay crime dañoo soxla sécurité sécurité pour nous s'il vous plaît monsieur le ministre monsieur le ministre de l'intérieur s'il vous plaît s'il vous plaît sécurité pour nous nga fichier électoral bi pour mu am ben fiabilité s'il te plaît man s'il vous plaît war ma koon utiliser pour yow parce que mbaam xuux moom Félix ñàkk jom moom du s'il vous bal leen ma dé s'il te plaît Antoine Félix Abdoulaye ñàkk jom ministre de l'intérieur s'il te plaît lijjantil suñu sécurité lijjantil suñu fichier électoral pour mu am fiabilité lolu lañ soxla nga tek ko au vu aussi de tout le monde ñepp xam fichier électoral bi la ca nekk lijjantil ba dimbali mu baña amati achat de conscience ak création parti politique yi nga xamni mi am benn folle prolifération sakkan bëri ki far fii kee far war nga dimbalé pour l'identité parce que on n'arrête pas la mer avec ses bras ñi nga foog ni yow li ngay wax ni mun nga leen arrêter c'est pas possible ñun dañu am droit voter buñu étrangers étranger du voter té ñun dañu am droit voter kon duñu ay étranger ba ngay fenn duñu ay étranger Félix Antoine Abdoulaye ñak jom ñun duñu ay étranger dañu am droit voter té ñi ngi voter donc duñu ay étranger am le droit envoyer de l'argent au Sénégal donc duñu ay étranger am le droit de jouer équipe nationale du Sénégal donc nous ay étranger am le droit d'aller à suñu xaalis ngeen lekk ko donc étrangers. ay étranger le droit droit cotiser pour Pastef donc duñu ay étranger am le droit pour un changement radical de ce système donc étrangers. ay étranger que nga xam nag am le droit de am nañ droit boobu te di nga xam ne am nañ droit boobu noonu nu ñu amee droit di yónnee foofu plus de un virgule six milliards de dollars par an ngeen ni ko fuurux warax boole ko ci seen PIB ci seen indice su PIB yooyu may wax ni moom yuusu du ko xam parce que moom partisan alimentaire la élément alimentaire la mënu ko xam xamul PIB xamul développement endogène Macky Sall ay imbécile rek la àndal ay xaju xaram kese la àndal ay lekk lekkkat rek la àndal ndeysaan yuusu lan moy développement endogène xamu ko lan moy PIB xamu ko c'est-à-dire ils sont avec des les imbéciles sont avec des imbéciles Macky Sall ay imbéciles la imbécile. mais élément Sonko bon laal tay xamna le développement endogène xamna lan PIB xamna lan PNB etc. cetera xam indice de développement économique Nous avons le droit voter le droit yónnee xaalis ngeen lekk ko am droit tabax suñu dëkk am droit football équipe nationale noonu lañ amee droit jël suñu alal jox ko ku ñu neex Antoine imbécile ñàkk jom yow mënoo ñoo tee envoyé xaalis Sénégal ku ñu neex mënoo ñoo tee dajale xaalis ku ñu neex jox ko ku ñu neex ñun ñoo ko liggéey yow amoo njëriñ wutu lu leen seen xaar liggéey amuñu liggéey ay imbécile lañ doon kon ay yusu taxawalu ci parti martatu timbo mais ñun rek ñun duñ tok fofu di martatu timbo duñ tok fofu di martatu Macky Sall ñun dañuy liggéey ñafé ñak bu toy xep dajale señ alal jox ko ku ñu neex te mëno ci tous nex mëno ko ci dul mëno ko ci nex mëno ko ci te xolal say say loi ak say règlement ci potu waasu day bu toy xep billahi wallahi boy jëm ko jëm ko daal sama gaay yeen xam ngeen xam ngeen lan mooy PIB yusuf boko lajane laajoon PIB bëgg na suba xam ko def jangul jangul jongul ngi sal ay ay xar la tamit ci xar yi la bok mom ñing ko ñing ko ñing ko tak buum ñom ñing ko tak buum en 2012 yusuf taxawal kat la won ñing ko tak en 2012 yusuf Rapatak taxawal kat la won rek amul liggey amul kii issu d'une famille pauvre dañ ko tak boum la den victime la rek yeureum len ko sama yeureum len victime la rek ndeysaan dafa doon wut num num jox sen wa keur lu lek rek mom xamul lu lew lu lewul mom il était là pour <laughs> les caisses noires na am nañ ko jox weccet bu mbiw bu sen keur rek xam nga souvent ñom lañuy tak souvent mom lañuy tak non je t'insulte pas mon frère tu es <laughs> mais je te dis la la réalité Youssou je t'insulte pas <laughs> dama la saga dama man xam na ni yow xam nga ni yow élément alimentaire nga danga dem foofu noonu juste pour loo lekk pour am loo yóbbul seen kër mais Youssou yow jàngoo Youssou lan la la Macky Sall war a doyee léegi kaay ñu débat tuuti lan la la war a doyee Youssou Youssou jàngoo Youssou munoo bind Youssou munoo bind français bu baax Youssou goroo Youssou yattoo Youssou bu ma la xamee da nga doon rab Youssou aayoo woon Youssou Youssou lan la la Macky Sall war a doyee da bañ koo ba da nga dem farak timboo sax timboo moo lay jox ay weccet pour nga wut ay xar ay bëy yu mel ni yow pour indil ko ko kese amul leneen xar bëy yi nga dajale takk leen ci buumu timboo muy buum bu verte wala buum bu rouge wala bu weex yi nga indil timboo na ko takkal naa la quarante wala cinquante xar ak ay mbaam yu doon traîner fële caaroy mais ñun yuusu xam nañ loolu mais yuusu amoo benn compétence boo xam ni war nga mun a yeew di liggéey bu dul nga nekk dans l'informel yuusu amoo ben compétence Youssou rapata amo ben compétence que mu nek cognitif que mu nek lu meuna a compétence bo xamni nga amal ndirign askan wi munoo bind français amo diplôme amo xam-xam voyager amo expérience legui lan nga wara liggéey te man lay gis nga yeewu sol costume dem ci mairie kulay lay Abdoulaye Timbo nga taxaw pour rayante parce que Abdoulaye Timbo mo lay jox ngooñ bu ngay lek mo lay jox ripaas bi lol da fay jeex yusu ñun ñu ci xarito ba war ba ba war leen fe bayyi yusu ñun ñu ci xarito ba war leen fe bayyi yusu wara dem yusu da ngeen di wara genn da ngeen di effacer wu par la force ah sama gaayen nga da ngeen di effacer wu instant yi jamono jii ni ni les gens sont déterminés de jeunes yi ngay gis ñuy dem di rayante Macky Sall joxu leen liggéey joxu leen luñ gor joxu leen luñ yett comme nu mu ko defee woon ba ba def la xar léegi amatul de toogatuñu toogatuñ di xaar ngooñu Macky Sall wala wala ñaxu Macky Sall wala ay carton Macky Sall xaaratuñ ko jeunes yi dañuy jóg boo leen joxul liggéey ñu jóg xotti frontières yi dem dem liggéey am seen alal ñëw jàppale seen réew ci loolu lañ jóg te toogatuñ di xaar kenn waaw yuusu bagas bagage laay wax bagas, bëri bagage mu ne woon rapata ak don rap victime la victime du système la rek mais dañu tollu ci ben xex bo xamni ni xarit ci li soit da ngeen ni ñew pour ñu and defar ci Sénégal soit dañ leen fi effacer dañ leen di effacer dañ leen di effacer c'est tout maintenant comme nu ko mëna a

loolu dafa war a jeex on est pour une révolution dañoo ñëw pour une révolution dañoo ñëw pour changer la donne changer liñ fiy faral di gis loolu moo ñu fi indi donc bu kenn seetaan kenn di yàq suñuy réew APR yàggu fi man APR kii gënuma kenn gënuma xam APR dama ci am ay nit lëmb yoo xam ni ak ñoo sonnoon <laughs> non daje gars yi saax-saaxe nañ suñu alal gi yëpp APR am naa fa nijaay nijaay bu bokk ak sama yaay ndey ak baay tey jii la ma yor ba mu fay dugg yoru ko woon am naa fa xarit di sama doomu ndey lamu yor tay bam fay dugg yoru ko won ñima lay wax yeb ay chômeur lañ won sama nijaay joju chômeur la won tay ji ma ngay kër yor 4x4 yor oto essence bu fess tep yor chauffeur bay fayate ba ko neex mu jël dugal foofu sama xarit bama lay wax chômeur la won tem ànd ak Macky Sall di ko dajal ay 16 di ko dajale ay carte d'identité jambour tey jii mu ngi yor oto bu tooy xepp kos karawaat so ay souliers yi tàkk di di voyager di naaw donc yéen <laughs> ana seen seen xaalis ana seen liggéey ana seen liggéey seen ñu nekk APR yëpp lii lañ Timbo pare ñoo ñëpp ay chômeur lañu woon taxawalkat lañu woon amul benn élément APR yoo xam ni tey jii dañ dañ doon liggéey di indi seen ñu ko fa def doon liggéey di indi seen xaalis ñoo ñëpp c'était après en retour ñu am ay ay lu ñuy gagné ñooñu rek fa ne waaw mais ñun nag on se rappelle euh, de la lettre du 3 janvier 2009 bi Macky Sall bindoon di demander de l'aide à Omar Bongo Youssou demal ci sa parti nga leen Mollah Morgun nee na le 3 janvier 2009 ñu woon la lettre bi Macky Sall bindoon di demander de l'aide à Omar Bongo te Omar Bongo étranger la dégg nga dinañ la wax ñoom noo amul kenn ku nekk APR ku doon liggéey Mansour Faye ñooñu ñëpp ngay gis noonu ay taxawalkat lañu ay chômeurs milliardaires lañ ils sont tous devenus des chômeurs milliardaires des chômeurs milliardaires. et man dama demande depuis quand <laughs> les financements des partis politiques demande de la transparence man loolu laa leen di laaj ñàkk jom. Félix boy Félix depuis quand les financements des partis politiques demandent de la transparence Je vais expliquer le depuis quand les ont commencé dugg ci parti politique du di di il faut juste interroger l'histoire pour voir les financements occultes le blanchiment d'argent ça. Mais l'OLIP c'est dans le camp du pouvoir mon cher c'est dans le camp du pouvoir y a un député pour xam des ay milliards de blanchir milliards y a un député pour xam des ay milliards la doon blanchir Bougazeli une partie la là wala C'est une partie. si si si Il y a nit député qui ni des faux médicaments la indi valeur de milliards ay milliards de faux médicaments seen président libéré ko na yëguma woon ni sax libéré naa koo xam ni jugé guñ ko yéen lañ jàpp ay milliards laa lay wax de yéen lañ jàpp yéen lañ jàpp yéen waa APR seen député seen député ay milliards de faux billets yéen lañ jàpp yéen waa APR seen parti yéen lañ jàpp seen président yéen seen parti mu libéré ben assassin sadik bohamni plus de 10 milliards valeur faux médicaments la doon dougal Sénégal sen président signé libéré ko gratuitement mu dem yoonam te jugé wuñ ko mu dañ ma indil ay ki rek yeen lañ japp yeen lañ japp faux faux médecin faux médecin parti bu bokk seen parti benn foo médecin buy opérer di diagnostiquer di di bindal di di bindalaate ay di prescrire ay médicament yéen lañ jàpp ci seen parti yéen lañ jàpp ci seen parti waaye léegi <laughs> wax leen ñu faux médecin faux un un dealer de faux médicament yéen lañ jàpp. ak Bougazili faux euh, euh, d'une valeur de des milliards alors ce hein? yeen a financement au parti amul ben financement parti bu ñu a APR la wara président a xamni président ba pauvreté la pauvreté seen nii naloo dayut ña fa nekk yëpp ay chômeur lañ ay taxawaalukat milliardaire amuñu woon fonction bu am bu taxaw yéen bu leen wili pande seen bopp respecté leen seen bopp APR respecte leen seen bopp bu leen wili pande seen bopp sama nijaay jooju bu ngeen ko fay jël liggéeyul gor jàttut chômeur la woon toog bopp koñ ba toog biir gàlle même booy jëndal ma tabac booy jëndal ma li booy jëndal ma li tey mi ngi noonu 4x4 la yor bu tooy xep am vitre teintée yor chauffeur gasoil tout géré te amuloon benn profession sama xarit boobu noonu ndey ndeysaan bëgguma tudd tëram liggéeyuloon ko dul yettul mi ngi seetaan live bi ñii ànd suba ngoon gu dégg bëccëg ma dugal ko ci rab bi pare mu kii am dem am rek ma tourné gis ko muy dajale ay chaise tey jii kos karawaat la sol dóor ci ay pins Sénégal yor otom di dawal te ko dul yettul bu leen ñu dépendre seen bopp bu leen yàlla suturaalee da ngeen di suturaal seen bopp ndax ñun duñ seen morom comme yéen sàcc ngeen nekkee caisse noire fonds politique huit milliards fonds taïwanais fonds financement occulte illicite moom ngeen di dundee financement des impérialistes des lobbies maçonniques et LGBT tëj leen seen gat yi noppi duñ seen morom tëj leen seen gat yi ay sàcc ngeen sàcc mënut a yuuxu sàccee sàcc munte yu sa cey gis gi gaay di tagg ay video Macky Sall di wone mais c'est vrai lol jaru sax wéranté Macky Sall néna mo alalam yépp ci bitim réew la jóge ñun xamnañ ñu bitim réew Macky Sall yorut dara yorut dara alalam yépp bitim réew la jóge te ñu ka ton jox yépp dañ ko jox pour après am ay place ak ay ay ay bureau wara gagner ay marché wala ñu jox leen ay projet lépp dañ dil mafia rek yéen ko leen di wax ak drog bi yéen seen parti ku dàq saaga ndey Sénégal <laughs> seen parti la bokk Cissé Lo yéen lu gën a bon ci Sénégal bu ñu koy wër lépp seen parti la ne Bougazelli moo fi moom lañ jàpp ci faux billets milliards ku dàq saaga ndey senegal seen parti la bokk muy Cissé Lo ku gëna imbécile sen politicien bu gëna imbécile xajé ya xam bay sen parti la bok violeur ku dakk tux yamba dakk tux yamba Sénégal sen parti la bok ya xam bay lo lu mu tux ko dafa tux tux ba gémmi ñuul ku ça amul lu bon lu ñuy wax bu newul ci sen parti ku dakk fan ci sen parti la né Macky Sall mo dakk duul ci lu yalla musse bind sen parti la yéen seen parti yéen seen parti cest à mboneel la boole mboneel lu yàlla di xaraamal mboneel la seen parti seen parti boole amul lu baax kër ya ña fa gënoon bon ña fa gënoon nekk imbécile ña fa gënoon nekk traître ñëpp daw nañ seen parti ya lañ dem lépp lu ñuy wax ci mboneel mu ngi ci seen parti billahi ku dàq saaga nday sen parti ku dakk yamba mi ngi violer parti violeur bu gën ngand mi ngi sen parti ku dakk dul senegal Macky Sall mi ngi sen parti c'est-à-dire yeen amu len amu len dara li ngeen li ngeen wara a wax ak nit lu tecc sen gadi te nopi te xam ñun duñ sen morom te di ngeen fi jógee di ngeen fi barke alquran 2024 di ngeen fi bu len ngeen ministres de l'intérieur bu len dakk bu len dakk kenn jaj jonne jom ñàkk jom na ñëw Félix ñàkk jom ok ngeen dem jëli ji Aly Ngouille Ndiaye ngeen boole def leen quatre ministre de l'intérieur dañ leen fii wàcce dama ne Macky Sall benn ministre leen l'intérieur sax garaaw jëlal quatre ministre de l'intérieur nga teg leen fa ñu boolandoo ah dañ leen di wàcce yéen yéen tey leen deux mille vingt quatre xaw ma lu ngeen bi muus ak waane ba doo leen fi wàcc di ngeen fi wàcc raxas seen loxo ñu nokk leen ci kaso yi kaso yi da ngeen ciy dugg de ah nan nga ñëwee yow dugal dugal Karim Wade dugal Khalifa Sall dugal Jean Paul jazz dugal lu eh, mu tërati Assane Diouf dugal ko len neex ngeen ne doon fa dug di ngeen fa dug de. rëbës kay da ngeen ko ñam rëbës di ngeen ko ñam de 2024 munu len musa ka waane ba duñ len wacce xana ngeen ray ñu ñun ñep La révolution est silencieuse. La révolution est silencieuse. li len fay jëlee <laughs> dina melni farango bek musa li leen fay jëlee xamu leen ko sax fu ne nii Ousmane Sonko ngeen ja Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom mënul lu leen ko dara doo leen ko jege doo leen ko laal maa leen ko wax lu ngeen di da nappaate ne ay xaju balcon ngeen mbow rek ngeen xam doo leen wàcc waaw Abdoulaye Daouda Diallo jël leen ko mu ànd ak Félix ñàkk jom mu ànd ak Aly Ngouille Ndiaye ngeen def leen ñoom ñëpp ay ministre de l'intérieur ba xam yéen mun ngeen fexe rek bañ wax fi waxu troisième mandat kon di ngeen gis yeneen financement ay financement yi naaw xam nga cent vingt cinq millions ngeen wax ci benn journée ñëw leen rek am leen fit rek taxaw way wax ko troisième mandat di ngeen gis yeneen financement milliards yi naaw ci ay ay jaas yu këppati bopp ay jaas yu këppati bopp da ngeen di toog di gis seen bopp yi di naaw ngeen ngeen di doog comprendre ni <laughs> ñun pare nañ bu yàgg ñun xam nañ ñan lañ amal affaire ay vrai imbécile ay vrai pouvoiriste ay vrai jaayum katum doole lañ amal affaire ñun xam nañ ko de lii lépp ay preuve la yu leen di wan ni yéen mënu leen rëcc si suñu loxo yii xanaa ngeen dee te boo leen dee sax nañ leen suuli ñaf seen maam ba pare suulaat leen yéen ñii yoon yoon ñooñ ñëpp Macky Sall ak jot nag yéen ñi ñëpp te xolal munu leen fee rëcc doo leen fi rëcc doo leen de waaw ah, bi jóg na de l'éveil des conscience noo taxaw na te doo leen ko téye nag te loolu moom wax nañ leen ko <laughs> boo leen tëddee moom mu neen bu leen nalaw <laughs> Macky Sall moom kaso gi de ci dugg de yii kaso bi da ci dugg de amul kenn ku ko koy sauver amul kenn waaw amul kenn parce que ñoom mën na ñëw di après xam nga ñu jël pouvoir bi mu ñëw naa Ousmane Sonko xam man musuma laa tëj kon nag bul ma tëj déedéet <laughs> sa frère moom ci kaso bor lépp pare nañ ko sa frère mooy njëkk dugg ci kaso bi pétrole gaz timbo gasama képp kuy gasama dinañ ko ñax ci kaso bi timbo yi dinañ leen nokk ci kaso bi dinañ leen ñax fay dina leen ñaf ci kaso bi ñii fees ñii dinañ dem Rebeuss ñii dem euh, euh, euh, Liberté 6 ñii dem Camp ñii dem Koutal mais moom Timbo yi yi ñu ñaf seen maam Koutal fay yi seen maam Kédougou fay Mansour Faye ak ñoom ñëpp ñoom Kédougou la ñuy ñàpp seen maam incha allah kaso Kédougou bu ñu yeboo ñu defar ko de parce que ñoom Kédougou lañ leen yóbbu fay Kédougou Timbo ñu yóbbu leen Koutal sàlli yi ñi ñàpp seen maam rëbës ñoom ñëpp rëbës incha allah waaw clan fay sàll yi <laughs> doo leen ci génn de doo leen ci génn de moo tax fu nekk nii moom nalawatu leen nalawatu leen de mais yéen moom ah yéen <laughs> tey rek ngeen dee billaahi wallaahi yéen kaay eh on continue ah. man moom tàbbalu gu ci woon sama ñaq mais vraiment incha allah naa tabal sama cent vingt cinq million yónnee leen ma lien bi rek ma dugal man sama carte man xam nga ñun liggéey nañ wute nañu <laughs> ñoom yu nga am taxawaalu kat la am ñu liggéey <laughs> ñu leen di jox suñuy poste <laughs> yónnee leen ma lien bi waaye man tam damay participer de cent vingt cinq millions ñaata lañ toll gars yi cent vingt cinq millions ci vingt vingt quatre heures la tëju leen ko bu leen ko tëj de étranger yi génn leen étranger yi génn leen génn leen seen bopp waaw comme local yi nee nañ ñee ay local la lañ yoruñu dañ leen war di sarax étranger yi génn leen génn leen malien bi fuñ toll kaa wax la ma fuñ toll cent vingt cinq millions la woon de fuñ toll xam naa bi dañ ko war a yokkaat nag parce que moins de vingt quatre heures cent vingt cinq millions ministre bi génn à trois heures du matin naan ay parti politique yi financement <laughs> yi nga xam ne musul am donc il faut en moins de une semaine dama bëgg mu doon un milliard léegi un milliard ñu xam yow yow ñàkk jomm lan nga mun ci lii <laughs> Félix Abdoulaye ñàkk jom Félix Abdoulaye jom parce que jom moom doo yàq sant jàmbur yi mu ngi ñaata cent vingt cinq million quatre vingt un millions de gros donateurs 1200 ñaata la fa lañ toll waay gaay ah, gaay gars leen tamit ah, gars yi xeex guerre day saf mondial de il faut ñu ñàpp seen maam tamit da ah. affaire yi day day yokk day yok de dafa wara jëm kaw na jëm kaw na gaay yi na gaay yi non xamalu tax j'utilise ñak jom parce que jom jom ñu ñu santone jom yi ñan dañu am jom dañu am jom sincèrement ki bokku fa ki moy étranger ki lañ wara xol juddum étranger la waaw 3w point pastef point org waaw un milliard lañ soxla nag un milliard na ñëpp jóg ta tàbbal ci seen i ñaq waaw ñu wan leen ne ñun dinañ financer ab parti kaa dañoo bëgg kii dugal lien ba dugal leen lien bi cent vingt cinq million huit cent quatre vingt dix neuf mille jëkkala ndax aywa boo leen amul woon ñu créé leen de waaw pastef point org dugg leen dugg leen dugg leen sama gars yi dugg leen man dinaa fa dugg léegi léegi léegi léegi yónnee léegi incha allah bu may pare laay bi di dugal ne ne woon ba xam yéen yéen ñu moom wala yéen a ñu jur yéen wala yéen a ñuy jox lu ñun ñun lu ñu moom bay participer liggéey suñu alal xool ku ñu neex ñu jox ko ngeen na ay kenn di financé parti kenn ñàpp leen seen maam seen parti bi yëpp ci ay caisse noire ngeen koy ngeen koy tuyee si caisse noire ngeen koy ngeen koy gérer seen parti bi yëpp ci ay activités yoo xam ni illicite ay financement occulte

il faut ngeen sàcc pour def sàcc leen kenn du fi jëlu lu légal di ko def ci ci parti waaw il faut ngeen def comme ñun mënu leen financer te amu leen caisse ñun ñoo yor caisse noire sàcckat lañ ñun APR mënu leen financer parce que parce que yoru leen budget de l' état te ñun ñoo yor budget de l' état dañ koy sàcc nañ ko ciy def kon kenn parti te caisse noire budget de l'état financement illicite wala wala nga ngay ay lobby ngay Pastef ak ben impérialiste lobby maçonnique ni LGBT Pastef liggéeyul ak benn député boo xam day def argent sale ko ak ay milliards Pastef ak argent détourné Pastef ak élément boo xam ni mu muy Georges Soro wala muy Bolloré Pastef ay sénégalais lay liggéeyal ay sénégalais yu ñàq jël seen ñàq def ko ci waaw nemmeeku tuur nañ ñun tamit ñun nañ def loolu nañ ci jàpp na gën a saf na gën a saf non man man man gars yi man mais nag bettu ko quoi sincèrement bettu ma mos naa leen ko fi wax déggu leen ma dama ne Pastef amul chômeur est-ce que xam ngeen loolu Pastef gis ngeen jaakati caaf bu leen di romb sax Pastef la gis ngeen ki nga gis mu yore ay gerte kembam di wër sax Pastef la c'est que Pastef les partisans de la moindre effort amuñu fa Pastef yarul kenn ci nga xam ni da ngay ñëw di di jël ñàq jàmbur di ko jëriñoo wala ngay xaar décide pour loo lekk loolu Pastef yarul yarul doomu boobu doomu aadama boobu waxoon naa leen ne la man dafa am loo xam ni bon bu ma koy wax gars yi dañuy suivre live mun nañ dem di wuri ay enquette ba am ñu ñu yàqal loolu moo tax du may wax mais dama ne amul dëkk bu ma dem te dawuma ci consulat ba walla ambassade ba amul dëkk bu may dem te duma dem ci consul ba ak ci ambassade ba ci consulat ba walla ci ambassade ba ne man Mollah Morgun maa ngi ci dëkk bi amul te wallaahi billaahi amul dëkk bu ma dem te fekkuma fa jeune boo gis mu sol kos cravate jekk bopp bi am dara bu mu waxee yow da ma xamal ne Ousmane Sonko laa billaahi wallaahi wa taalaahi ñooñu nag seen liggéey moo leen fa yóbbu mais xam nañ ni pës bu ñu wanee woo peut-être mu ne leen fa rocc ñëw sànni leen pour xam nga rek parce que dégg na ni kii ak kii Pastef lañ mais dama ne Macky Sall loolu moo koy loolu moo ko nar a bett xamul ni jeunes yi ñuy gis yëpp ñu nekk France ñu ne waxuma ambassadeur ba nag ambassadeur ba corrompu lay doon parce que ambassadeur bi souvent ci ay deal politique lañ koy jëlee ci ay affaires yooyu benn benn lieutenant colonel wala benn sergent wala benn général bu retraité ñu koy wutal lu ko neex wutal casé ko fenn loolu ñooñu ay amba paa lañ boo xoolee dëkk boo gis ambassadeur bu bo demee bu France ak ba ñëpp ci yem ñom ay ay généraux yi ay généraux yi lañ jël ak ay militaires yi yag yag yoy lañ jël di leen xam nga casé mais jeune bu ñëw jang ba am ay diplôme am taxaw bo gis ci ambassade ak ci consul man ma la wax man Mollah Morgun jël sa tang nga ak mom bureau nga laaj ko ngeen waxtaan dina la laye bir na mom Ousmane Sonko la man lool moma gëna gën yéem ba ma demee dëkk ba du ma wax parce que mun nga dama doon wax sax ñooñu am na ku ma ci woo xamal ma ni mi ngi seetaan live bi te xam nga bu sañoon bu ma joxe indice parce que nguur gi ay bandi lañ bandité bu salte boo xam ni bu bu ñuy bu may joxee indice rek dañuy suivre bu may joxee indice rek mun nañ commencer dem def ci ay enquête ci bir ambassade ya consul pour xol ay element yi nga xamni mora Mollah Morgun ñi wala nangam ak nang donc dëkk ba sax duma ko wax au delà de l'ambassade l'ambassadeur bi nga xamni mom politiquement lañ ko fa bayé jeune bo ci gis pastef la jeune cadre yépp pastef lañ jeune cadre yépp yu nek Sénégal yu nek Japon yu nek Corée yu nek Singapour yu nek France yu nek Espagne yu nek Belgique yu nek Bruxelles yu nek Allemagne ñoo ñep ces jeunes cadres là sont de Pastef té ay kat lañ yor sen alal té bëgg un changement radical boy ñu bëggé changement sax xamoo da nga ñu wax ñoom ñu la gaañ fi ñun affaire dafa war a changer bay dafa war changer parce que dañu xam généraux bi nga xam ni tey jii mooy seen moo fa jiite mooy ambassadeur ñoo ko ëpp diplôme dax ko jàng ëpp ko bopp fuuf ambassadeur bi day ñëw xoolal oto moo koy indi chauffeur mu ñëw taxawaalu tuuti du sax signé man dëkk yu dem fa ambassadeur bi pour ma gis ko problème la ki topp ci moom moo fay nekk di signé sax day su neuf heures dix mu ñëw cos karawaat ki taxawaalu fa wëndaalu naan benn kafeem pour demat général la ex général wala ci arme bi la newoon chef la fa woon dem yoonam booy yi ñoo fa nekk ak kos karawaat toog di xaar <laughs> ak bopp yu fees dem koo ci waxal mu xamal man jeune cadre la mais je suis de je suis de Pastef donc monsieur Macky Sall lu lay daanee sa doo ko gis bët lu koy luqi du ko gis bët lu koy luqi du ko gis fu nekk nii cent vingt cinq millions yi ci moins de vingt quatre heures moo tiital <laughs> gise koo dara sax gise koo dara alalu yàlla dafa lew te wute nak ay alalu lobby yow alalu yalla dina taxaw alalu lobby taxaw alalu impérialiste taxaw alalu argent sale taxaw alalu fonds financement occulte taxaw illicite alalu argent détourné taxaw argent budget de l'État détourné taxaw argent euh, caisse noire taxaw alalu yalla taxaw lolou mom ko munu len ko munu len fexe ba do len daanu munu len ba do li xam lan la woné détermination li wane na détermination bu am les jeunes pasteurs li lepp le sens de discernement bu am ci jeunes pasteurs li lepp engagement sociétal bu am ci ces jeunes pasteurs li lepp la capacité à penser et à réagir immédiatement des jeunes pasteurs li lepp la conscience collective des jeunes pasteurs li lepp le patriotisme des jeunes des jeunes pastefois lii la citoyenneté pleinement active active des jeunes pasteurs. foi. ce qui cette détermination cette capacité d'action significative des jeunes pasteurs. L'ol rek ku ci ki jël ci alalam di di di teumbal ci parti di rayante pour parti moins de 24 heures 125 millions sen ñoñu ñoo mérité sen militant wala sen sen leader ñu jox ko dëkk bi ay way sénégal yewu len ay way dimbali len sen bop li ngeen di dundu metti na il faut ngeen xam ko sénégal yeena nga fa tok sen jeune yaangi jël galia ya jeune yaangi top frontière ba dem des milli milliers milliers de sénégalais morts dans le désert et dans l'océan donc nous suñu papa lay waxal ak suñu yaay ñun nañ de ñun buñ sañon li ñi am fi ñu am ko suñu réew papa man buma ma duma tukki des yew ci sa kër gogou nonu ci étage deux étages ak climatiseur yi di nalaw di yew di xalangu ci lal ba ndax bu yow rek tay mënon na ndax sama kër étage étage la lépp di tàkk lamp yaag frigo yeeg lépp di tàkk mais xool naa ba xool xam ne liggéeyuma ci dara lépp yow la yaa ko liggéey ma bëgg am li nga am ndax nu nga def ba dëngal nga ci ma def ko bu ko def ba dëngal naan te man munuma ko parce que ñi fa teg dañuy sàcc alal ba mayuñu ma capacité mayuñu ma possibilité mayuñu ma lenn lu ma mun a liggéey wala am ci lu ma mun a dimbalee dimbalee la ci lepp ci corruption lañ ko mëna am ma jog dem sama yoon buma joggé dem man ak samay maas dajalé nañ ci moins de 24 heures 125 millions jox ko ki nga xamné ñun xam nañ ni wolu nañ ni ki lu tegu ci loxom day jaar yoon donc ñi ngi leen di ñaan ngeen dimbalañu papa yaay mam yeen rek yéen a ñu mën a dimbale rek yéen a ñu mën a ci ngor ci jom ci ful ci fayda ñak bu mu la tax a ñak bu mu la tax naan ndoxu potit ndax bu robinet rek nga rus papa yaay Mam, bo len deyee tay di ngeen ñu amal ak. li ngeen dund ci loxoy Senghor dund ko ci loxoy Abdou Diouf dundati ko ci loxoy Abdoulaye Wade ñun seeni doom seeni seut mag nañ bëgg changer loolu dundu len banex dundu len ci jam sengoor tek na len nakar abdou diouf tek len tis abla wadj gatchel len Macky Sall ñew ne dinañuy tollanti loolu comme jëm ngeen mag nak, dañ leen di ñaan ñun seeni doom ngeen dimbali ñu leen mënul effacer wu sax ngeen setan ñu ak ñi ku la votalo nga ne ko man pare na ci dé té duma yak sama aveniru dom yow yaay ku lay votalo comme histoire bi xex bi ñun ñoko ko bëgg gérer jëlal ko suñu bop dañ leen di ñaan ngeen genn ci raxas ci seen loxo ngeen taxawé né bo leen munul far ci ñun ngeen setan ñu dañoo fas yéene affronté dëmm di Macky Sall ak njabotam ñun jeunes yi dañoo fas yéene jox leen suñu bakkan ala kulli al changement bobu nga xamni yow mam yow dundoo ko da nga dund ci injustice ray nañ mamadou dia sa nawla la woon yow mam kiko ray moy sangor abdou diouf ñewati na ray doomu toroxal leen bañ na tot luñ leen dara ngeen dund ci injustice ablaye wad ñewati na rayati mom tamit dundal nit yi ci injustice ñun les jeunes nak dañoo mag am toll ci at boo xam ne dañoo ñëw pour changer affaire une bonne fois pour tout wala ñun tamit suñuy sët yi ñëw dund gàcce googu te bëgguñu ko bëgguñu suñu sët yi di dund gàcce gi nga xam ni yéen maam yéen ak yéen baay ñun fekk si nañ leen te gis lan ngeen doon dund ñu ñëw bu ko dund ñun nag déedéet déedéet kon boo la mënul dimbale ci xeex bi ngir yàlla papa taxawel ne bul voté bul voté yaay taxawel ne bul voté sétan leen ñun jëni ñun ñun ak ñom ñu xol ñu wanante du mujjé gëteum loolu lañ leen di ñaan parce que dañoo déterminé wu dañoo engagé wu dañoo pare pour gar suñu bakkan tek ko ci ne dafay changer réew mi dafay changer billahi wallahi abdou Macky Sall réew mi dafay changer réew mi di ngeen xamni ay ñu ñakul ngor kessé néwuñu ci réew mi di nga xamné ay xéetu yusu rapata kese nekkuñu fa réew mi di ngeen xam ay nit yu goré ñi ngi fa nit yu nango liggéey nit yu nango daan doolé nit yu nang ñakanté nit yu nango jël li ñu liggéey jox ko pour changement bi joxuñu ko Ousmane Sonko parce que dafa rafet de joxuñu ko parce que dafa njool dé déedéet dañ ko ko jox parce que dañu bëgg changer la donne dañu bëgg changer ñu réew mi di doxé dañu bëgg daané daane pouvoiriste yi dañu bëgg monument yi nga xam dañ ko ay monument wu xërem la bëgg def li nga xam alal réew mi dañ toll fo xam ku nekk la nga liggéey ngay lekk do tok muy dox do teud muy dox le sens du travail de la détermination

seri bon bam bam saf comme ay tuxatu bon yang fa dajalo nan ko sangare yang fa dajalo bandi yang fa dajalo daf ko phobie yang fa dajalo dañu tok bu neex ben ya xam bay taxaw fe tux ay bon bon tak genn bind article bu ko neex sagu ko neex fi la taxaw tej fi gi mari ya xam bay ni sagu ko fi ay nday tej ko fi ci kasso bi tuxum yamba ba ne ken ba bob bi ni tourne mu ñu tej gi mari non lañ félix bi ni nan ay sangaram ba 3 h ni matin yow indi indi ben ben feuille bo xam ak en ministre de l'intérieur ak ay tampom nan ay parti politique buñu buñu financer lañ ma dissoudre ko mais bo len toxé sen yamba wala ngeen nan sen sangara ba tagok sen sago ngeen poup ko sen bir neeg yoy ngeen yam ben place ñun duñ sen morom ñun duñ sen morom ba ci ku ci tox sap yamba nan sap sangara ñew saga suñu nday ba paré taxawat bind la neex ñun duñ sen morom

yow ak sa bay Macky Sall ak say ñeneen ak ñeneen ak ñe dama ne yamuñu ci cotiser de yamuñu ci cotiser de parce que alquran la la watal bés bo leen fi taxawee di wax 3e mandat di ngeen gis yi jaar ci air bi te do leen xam fan la jógee xam nañ ne ay vrai doomeraam ngeen motax ñi ngi leen di préparer lo xamni wallahi ñi ngi leen di préparer lo xamni ni bo leen koy gis day fekk dee ngeen bëss bi ngeen ci tek seen bëtt moy jour bobu mom ci ngeen di dee yeen gaay ñi ngi dajalo man boole nañ ma ci ay groupe ay intellectuel ñu am bop tous tous sont de Sonko tous ñi ay économiste lañ ñi ay magistrat lañ ñi ay syndicaliste lañ ñi ay ingénieur lañ ay borom bop yoo xam ñii ngi France ñii ngi États-Unis ñii ngi Australie ñu bokk ay groupe WhatsApp te tepp ci xam-xam rek lañuy ñuy débattre ci xam-xam rek chaque jour ñu indi thème bu dëgër këcc teg gaa yi di jaay xam-xam ñu wax woné seen xam-xam loo leen xalaat comme man yan stratégie lañuy jël bëss bu Macky Sall taxawee rek ne troisième balaa moo teg mandat lepp té c'est des gens yu outillé yu am les moyens parce que ñi ngi liggéey yor seen xaaliss tek ko té paré nañ pour ça moo tax na ne la révolution silencieuse mi ngi ci yoon mi ngi ci dans l'atmosphère mi ngi dans l'atmosphère duñ dévoiler lépp nag dañ leen di xamal rek ne dañ leen di artu ci ngeen xam ni réew mi troisième mandat mënu fi am gis nañ la ci investiture Ouattara dem nga fa taxawaalu ci boo jàppantuloo nag président Guinée bi di nga dem foofu di fa taxawaalu donc boo demee bay dem ci investiture bu Ouattara ça montre que yow ànd nga ci na Ouattara def waa Guinée na Ouattara safurlaa na Ouattara def waa Côte d'Ivoire te buñ la dax dàquloon Guinée da nga fa demaat bu la appétit l'appétit vient en mangeant comme ñooñu gis nga lu ñu def ba taxaw boo yaakaaree ni dina am fii fii Sénégal fii <laughs> ndax nga sa bopp de xam naa nag ñi la wër ña nga lay fen ña nga lay duul duul de xëpp ay ñoom genre Félix John ñàkk jom yi ña nga lay fooye ñu ngi ne sa noppi naan waaye mais te mun na ne mbaay ballon de sonde bi dóor naa ko man kay xam ne ñun ñu Sonko rek moo ñu jaaxal te Sonko <laughs> maa ngi napp gaay mi nee naa leen xool cotisation yi léegi ma détourné seen parti bi <laughs> xoola maa ngi xool gaay maa leen di napp waaye yaakaar yow boo sa liir sax munoo ko napp gaay yi ni nga waxee noonu lañ gën a yokk cent vingt cinq millions en moins de quatre heures de temps dang ko waxaat da nga génne sa pondre sa merde bobu rek affaire bi 84 millions yokkaat na ci 84 millions pour wol na ni yow gat sa gat sa sa menace motax bobu lay nga nopi waxato de moom da nga ti 3 heures du matin di pondre de la merde le lendemain 84 millions yokkaat ci ñi nga lay wat alors demal rendre compte sa papa ne ko maa ngi sànni baron son pour nap len waxna len ne len bo leen continuer ni damay dissoudre parti bi moins de 24 heures moins de 7 heures de temps 125 millions nga def sa pondre de la merde ñu indi 84 millions légui ñëwal waxata génnal bobu nga ni mes <laughs> ñun duñ ay élément wu Khalifa Sall de wala ay Karim wadi, yi parce que Karim wadi ñom andalon dañuy lek alalu Karim wadi. Khalifa Sall ñom andalon dañuy lek alalam mom mais fi Sonko moy lek suñu alal mo waxe moy lek seigne alal du jël ko diko ko moy lek seigne suñu alal maanaam ñun ñun ñoy financer financé mi ngi doog am dans l'histoire léegi demal nga rendre compte sa papa sa maître nga ne ko en moins de 7 heures kay 125 millions dama tit ci nalaw bind naa pondre naa de la merde di jox len mais président ñi mënuma leen téede quatre vingt millions lañ ci doli ñi dañu déterminer wu dé këj gi baw naan mom hein bu siluwul bu siluwul néew rek dina neuf c'est une révolution silencieuse intellectuelle intellectuelle duñ wax xar duñ wax ak bëy duñ wax ak mbaam idi da yuusu dallu ji duñ wax xar duñ wax ak bëy duñ wax ak man parce que maa maa ko bopp yu ñun si révolution bu ñu ni révolution bop la bop une révolution silencieuse intellectuelle duñu wacc mukk bay wax xar ndax xar yar xar mënul yag yag ba nga wax ak mom mbé rek la xam duñu yar xar bay wax ak bëy ak mbaam duma wacc mukk ba ak yow kon ma xép kon ma saga luma lire ci livre ma saga lima voyager ma saga lima jang kon ma toroxal ni jur kon ma toroxal samay nawle yi du ma mus a wàcc ba toll ak yow du ma ko mus def duma ma ko mus a def doo yàgg sama kër ba di xar wala ngay bay ba ma yàgg bay wax ak yow du ma mus a wax ak yow <laughs> bokkuñu niveau sa papa laa soxla Macky Sall demal wool ma Macky Sall Sonko sa papa Macky Sall ñemewu ko ñoom ñemewu ko de. xam nga lu tax Sonko amul moyen lan moo tax Macky di ko daw woote woon na fi débat ci élection yi Macky Sall ne mer ne menteng wo chaque jour mu woo ko fii ci débat Macky Sall daw billahi bu ma doon président Sonko Sonko taxaw mu woote débat ma ñàkk sama ndey ma ma ne acca bismillah ñëwal ñu debaa billahi wallahi wa taalahi bu dee gor laa mais mais sa président xam ne ni imbécile la xaj bu dee la sàcc la bu ko Sonko wootee fii daba un jeune booy bu ndaw génn bërki démb fii taxaw di ko di ko menacer sa président di daw di buddi fu ne téye nañ ko fa daw na ba fàtte tubéyam daw na ba fàtte caayaam fu ne ne dugg na fa ab booy bu ndaw taxaw di la kaay kaay bisimilah ñu daba Sénégal déglu ngay fërri chaque jour Marème Faye Sall indil ko caaya bi yow looy daw nga ba fàtte fi sa caaya daw nga ba fàtte sa caleçon yow président dalal mu ne ah bon booy bi kat booy booy bi day rëy booy bi ngi may menacé booy bi nee na nañ daje débat fu nekk sa président daw na fa fu ne daw na fa mais sa waay ba nit bu lay woo débat kese lekku la naanu la booy bu ndaw mat nga ko mat sa at mat na ko deux fois di la woo débat ngay mel ni dëmm bu jëfur bu gis bu gis ndawal di daw rek looy daw foo daw dalal dalal dalal dalal booy bu ndaw la woowu la ci dóorante boulon woowu la ci tëjum kaso woowu la ci nappaate daf la ne kaay ñu débat <laughs> mais mais looy daw maki looy daw bay daanu looy daw bay fàtte say grand bubu fàtte fa foo dem fàtte fa sa caleçon daw ba fàtte sa caaya daw ba fàtte say sulee di dawee tànku nen looy daw Macky Macky dalal kaay kaay bi nee na ngeen ñëw débat débat leen Sénégalais yi déglu loolu yomb na ku la joo ku la woo jox la mbaam wax la kaay nga débat booy bi wax ji jeex boo ko dumaa ba mu tooy xat ñëpp bàyyi ko ñu xool mais nag mais li metti ndeysaan c'est triste mais nag changement dina am de <laughs> sama gars yi maa leen di bëgg waay maa leen di siyaar di leen ndamoo di leen tiitaroo may wax tam élément Macky Sall yi Macky créer l'école du parti nga jël sa élément yi nga yóbbu leen ñu jàngi ngir yàlla Macky Sall Macky Sall bëri ngay xar ak ay bëy ak i mbaam xuux Macky Sall sa ak sa beuy nga yewi ni ñi wundalu ci live jàmbur yi te musuñu Macky dama bëgg nga xam lool Macky li mom yow lay waxal te fi la ka deji monsieur Macky Sall barke alquran billahi sa element yi taxawalu ci live jàmbur yi billahi amuñu benn bop sa ñu waxe ñepp xam ne ci yow lañ bok musuñu leen gis ak argument musuñu leen gis ak xam-xam ay saga rek buma la rësuloo saga la nday mo la ki saga la nday ñepp di wax argument ñu ay saga nday rek mais Macky yow yow lan loo def yàlla ba mu teg nattu boobu amoo ku am xam-xam yow yow amoo kenn koy àndal ku am xam-xam koo xam ne mun na fekk ay laay live ñeneen wax fa argument bu solide ñëpp tàccu ne man Macky Sall laa bokk pourtant xool leen am naa xam-xam gis ngeen wane naa ko yow say élément yëpp dañuy fu ñu dugg rek bàyyi fa ay puub fu dugg bàyyi fa ay ginnaaw kër buñ fa saagawul xasaate fa puub fa saw fa dem yéen yéen foog ni fépp la say élément dañoo foog ni dépotoir de mbalit buñ fa puubul saw fa wala dem seen yoon mais loolu monsieur Macky Sall xoolaatal wutal école du parti jëlal yi sa bëy sa mbaaxu yi taxaw ci laavu jàmbur yi nga yóbbu leen former leen ci xam-xam former leen ci ay capacité cognitive former leen ci gëstu jox leen ay livre ñu ngi lay rusloo de te nekkuñu lu dul sa image parce que saa yu la ko wooyee nga daw say bu buñ duggee ci live bu jàmbur yi kenn français bu baax sax mënuñu ko bind ndeysaan wala même buñ bindee français bu baax amuñu argument c'est triste ruslu na de jur say doom saa yuñ génnee l'instinct animal lañ xam jur say doom saa yuñ génnee ñu jàpp leen fenn lan la yuusu de moo dem fële puuf fa kee de eh, élément Macky Sall de mo dem fee saw fa élément Macky Sall de mo dem fee doxot fa kese ngay dégg gor yi de ñoo doon waxtaan fee élément Macky Sall ñëw na fa ñu ne lum mu def daf faa puub de ah non puub na fa puub bi xasoo sax xawmu lum lu japp nañ ben élément Macky Sall fee ci débat di ñu lan la fa def ah fa ñëw de saw ñëpp di waxtaan mu saw fa dem mais war ngeen rus lolu monsieur Macky Sall jëlal sa xar yii ak sa bëy yeeg sa mbaam xuux yii di taxaw wala nga fay. yow Macky Sall sa lépp tubaab bi la fayal tubaab yi ñu jàngal sa gars yi tubaab yi jàngal sa gars yow bañ nga ko même say programme sax programme tubaab bi la. jàpp ci mu Macky Sall loolu la man maa la koy ñaan man maa la koy ñaan sa gars yi ñu ngi lay gàcceel de sa gars yi ngi lay gàcceel ñu ngi lay ruslu amoo ko am xam-xam amoo koy xalaat amoo ko am vision parce que yow amoo vision doo xalaat. sa ñu nga yor yëpp ay xaraki bëy la ki mbaaw xuux c'est triste c'est triste ba may def live bi ba léegi xool leen am na koo xam ne dugg na mu ngi tudd yuusu yuusu Macky Sall la ko yuusu xawma lan am na lu yokk ci turam xool leen commentaire am yëpp te te te élément clé de timboo la Timbo muy cousin wu bu ñuy def live bi ba léegi xam-xam yu bari tegu na fi xool leen ay commentaire am du début à la fin ku ci gis fenn fu mu jaayee benn xam-xam kese defal ma live defal ma loof nga won nga nga nga nga copier ko degaatal tegaatal ma ko fii foofu la ñuy tëjee élément wu Macky Sall bu ko jegele nag addunaam yëpp ci Macky Sall la ko def ngeen dem xoolal ma commentaire yi mu def di début à la fin ba xam waxuma français bi parce que déggul français nag jàngu mais dem leen ngeen indil ma benn commentaire bu am juste zéro virgule cinq pour cent de xam-xam maanaam ku xalaat ku ñu xool ba xam xalaat na zéro virgule cinq pour cent ci benn seconde xalaat na ci dama leen indil ma ko te ñu mel nii rek la Macky Sall yor nag xool leen commentaire am yi ngeen dem jël benn rek ngeen tibb benn ci commentaire am ngeen indi ko fii ngeen ne ah fii rek waa ji dafa mel ni xaw na xalaat kooku bëri bagage la tudd voilà kooku bëri bagaas di jaamu di di coggu euh, Timbo di jaamu Macky Sall jaamu Macky Sall coggu Timbo léegi commentaire na fi dum deedeedee cent mille commentaires ci live bi début ba fin dem leen génnal ma benn ci commentaire yi boo xam ne laaj xalaat na ci une seconde ci ñu def ko nit ne du xar wala bëy wala mbaa xuux mais nit la tam leen ganañ amul ñëpp ñu ngi suivre ne waa ji bu muy bind début ba fin lépp ko lépp lu mu fi def instinct animal la lépp lu mu def <laughs> wane ne wane xaram wane na ni xar la wane na ni bëy la mbir ma noonu la mel mbir ma mooy mbaam xuuxu foofu amul élément Macky Sall bu am bopp soit danga nga nekk traître mbaam xuux xar bëy nag nga nekk ku amul jom ku amul ngor kese coggumaan kooku amul valeur amuñu vertu amul lenn lu ñuy wax ci valeur am kuy ànd ak Macky ku ko am waaw kon kenn gisu ko ah exactement noonu la mel nag waaw yuusu bari bagage donc boo demee nga ne Macky sa papa mu góor góorlu def école de école du parti ah, mu jël golo yi mu yor ak bëy yi ak mbaam xuuxi ak mbaam àll yi mbaam taxawaalukat yi genre birima yi hmm, bukki yi moom zoo la yor zoo mu jël leen yóbbu leen créer benn lekkool du parti am lu mu def seen bopp yi hmm? sama sama gaayen la yu sama gaayen la sama gaayen la malgré que dara newul ci bopp bi mais sama gaayen la ma defar vraiment defar defaral yuusu moo gën ma defaral keneen parce que yuusu bu dul dara xam naa ko <laughs> xam naa tamit fu mu bàyyeekoo xam naa ni man xam naa ni victime la tu vois moom mun naa ko defaral parce que xam naa peut-être dese na am ngor juddoo na foo xam ni affaire bi dëgër na metti na ci moom xam nga gis na benn affaire jàppee na ko opportunité fàtte na waa koñam fàtte na waa dëkkam fàtte na ay nitam moom lu mu lekk rek lay wër kooku am na xam nga partisan alimentaire la nangul naa ko ko mais defal ko ko moo gën may ko promo boobu moo gën ko dina dem ne Timbo am Timbo Timbo xam moom Timbo rek la gëm ndeysaan Timbo Mor gën wax na fi sama laay wax na ma fi wax na ma tudd na sama tur xam naa danaa dagg foofu après dama lii nii dama ko def pour Youssou dina dagg foofu woon ko Timbo Timbo kontaan ah moo laa na la ah. da ko wax lu ma wax de dana dagg fu mu gën a rafetee moonte ko yóbbul ko Timbo ne ko xoolal sa waay tudd na xam na ma xam na ma <laughs> la xam na ma nee ñun ay jàmbaar lañ hmm? <laughs> c'est triste quand même mais nag yu le réveil sera brutal et sera et sera trop tard gis naa ni même yow ku wax dangay ngay commentaire mais yow boo commentaire sa bopp kese déggoo français te mënoo bind lu baax mais des fois damay gis nga bind ay affaire ci Facebook damay xam ne saan bindal nañ la ko timboo waaw c'est l'oncle de Macky moom Timbo rek la gëm ak a timboo parce que fina <laughs> li muy lekk ci Timbo lay jógee boo liggéeyal ko yattoo kay Timbo tamit li muy lekk jóge ci Macky Sall Macky Sall li muy lekk jóge ci ñun waaw waaw yu fii moom may naa la promo yóbbul ko timboo mu jox la ndàmpaay <laughs> nga yóbbul xale yi xam naa soxla si war na sox xale yi war nañ soxla ay couche xale yi war nañ soxla couche c'est comme seen bàyyi liggéeyut mi ngi ci mi ngi ci cogg ci politique bi ah maa ngi lay defal promo bi pour timboo dimbale la tuuti jox la loo mun a jox soxna si sax ah, mu jëndal couche xale yi ah <laughs> xam na xale yi moom il faut ñu am couche ah xale yi moom bu seen bàyyi doonee xar wala bëy moom <laughs> lu ñuy xam mooy puub ak saw kese puub lekk saw hmm? lekk saw xanaa ñu yóbbu leen ci internat yi euh, maki waa waa APR waa Pastef yi dimbale leen dimbale sa doom yi am nu mu ngi mais sinon dañuy doon xar ni seen baay de <laughs> lekk poup ak saw rek ah, ak tëbu kon nag Timbo maa lay ñaan nga dimbale sama doomu ndey yuusu nga dimbale ko lu mu yónnee yu mu yóbbul kuus doomam yi hmm? parce que xam nga waxuma mu yóbbu leen livre parce que xam naa yow say doom moom kuus lay ñu soxla bu dee doomu Pastef waa moom moom moom ay livre lay soxla ay bouquin mais bu dee comme comme <laughs> seen baay <laughs> xar la xar xar mënul jur lu dul xar xar xar la mën a jur Macky Sall bëy la ñum jur a ñoom timboo la jur ñoom Gassama ñoom Fall ñoom fay ñoom sàll ñoom ñëpp moo tax boo leen di yóbbul cadeau kuus nga leen di yóbbul parce que seen doom yi day rek la ñuy def day saw saw ah, ak tëbu donc timboo dimbalal sama waa ji yuusi di sama xarit vraiment démb bëri nga jàppale ko ci kuus may ko sax loo xam dina ci yóbbul jabaram kuus pour doomam yi nga xam ni ñoom mooy loolu quoi jaajëfaay sama gay, yi ñu leen di eh, respect respect à ah. waa Pastef big up one love bu leen bàyyi xeex bi yéen xam ngeen ko gënul ma leen ko xam yéen moo amul lu ma leen jàngal ay bopp ngeen xam-xam bopp kese ngeen moom du ma leen jàngal moom boo leen ma jàngul du ma leen jàngal man moom waaw bés bu sëggee rek def nii rek xam leen ni nitu Pastef laa jàkkaarloo parce que bopp lañ am xam-xam xam am vision am objectif am bëgg-bëgg mooy seen réew doon ay patriote doon ay citoyen d'honneur xam la conscience collective ñooñu moom amul lu ma leen di jàngal ñooñu moom vraiment big up quoi rek laa leen mën a wax big up big up and big up encore waaw bépp élément wu Pastef one love yalla na yalla fay yalla na yalla yokal yalla na sen njabot bi parkel yalla na sen njabot di parkel am len njabot am len njabot nan njabot gi jóg am len jur len jur len parce que il faut ñu xex ba jëlee fi ñi nga parce que tamit xamal xam nga l'instinct animal lek nan ak tëbu la ñoom dañuy jur jur yu bari bo setlo ñom dañuy jur jur yu bari parce que <laughs> c'est dans l'atmosphère animale donc bo xar bi day tëbu benen xar bi jox lek nan tewunte lolou lañu lolou lañ xam moy c'est l'instinct animal lolou lañu non lañu dundé lek nan tewu motax man leen bu koy dem ñu yobul leen ay couche waaw ñun nak bon comme ñun suñuy dom cochon intellectuel bi lañuy gëna yokku tu vois ni fo ñun tam ñi am njaboot pour suñu njaboot yi mëna xex ak ñom tamit parce que ñom tamit traiter dañuy màgg rek seen dañuy am njaboot ñu tam dañuy am njaboot il faut njaboot yi tamit xam nga mëna def affrontement quoi waaw kon nag gars yi ñu ngi bëggee ñëpp ah waxuma nag waa APR yi man du ma bëggee xar nit yi laay wax bëggeewuma kenn ku bokk APR parce que xar ay bëy ki mbaa xuuxa fa ne bëggeewuma leen de ñaanaluma leen dara bëggeewuma leen boolewuma leen ci dara dara dara dara waa APR boolewuma leen ci tus xar yeeg mbaa xuux yeeg moom man nit laa nit yi laay bëggee kon ñu ngi bëggee képp ku nekk ci Pastef képp koo xam ni tu as la conscience citoyenne maanaam ñi nga nekk Pastef ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ils ont la conscience citoyenne maa leen di bégee di leen char di leen màggal di leen ndamoo te di leen tiitaroo di leen wax ne big go ahead go ahead amul bàyyi ca kaw ca kanam ndam day am ala kulli àll waaw waaw di mastaw nag waa APR ñi nga xam ne seen ministre dañuy tiit ci ay nelaw trois heures du matin di pondre de la merde di mastawu Macky Sall ci Euh, xarak bëyam yi mu yor bàyyi leen nii amuñu buum bàyyi leen ci internet yi kuy laaj ñu dugg fa taxawaalu duñ fa wax xam-xam di mastawu Macky Sall bu baax a baax ci éléments yi am nga xam ni sàcc la ñuy def ak ñoom siisaloo nga xam ne ay saagakatu nday lañ di mastaw Macky Sall encore ci njabootam gi nga xam ne ay saaga nday la jur ay ay faux ñoo xam ne ci faux la ñuy dox ñoom Bougazelli di mastaw Macky Sall njabootam gi nga xam ne tuxu ay ku dàq tuxu yàmbaa Sénégal ci ñoom lay jógee dàq trafic drogue ñoom la ne ñu maa ngi leen di mastaw maa ngi mastaw Macky Sall lool ci njabotam gu bon gi njabotam bi nga xam détourneur de dernier public lañ ma ngi leen maa ngi bu baax di ko xamal ni ah <laughs> na julli rek ñaan yalla yalla mun na changer njabot gi yalla mun na ko changer parce que yalla mo yor njabot gi njabotam gi amna na trafiquant de de faux billets amna na trafiquant de drogue amna na ku dàq saaga ndey siiseloo fa la nek ku dàq euh, mom ci bopam sax mu dàq fen ci mom mom déjà signé ay ay décret yo xamni ni ko fenn bay libérer ko xamni ni jot ñu ko jugé donc Macky Sall maa ngi lay mastaw maa ngi lay mastaw bu baax euh, di la ñaanal yàlla na yàlla dimbale sa njabootu xar ak bëy ak mbaaw xuux waaye yàlla na yàlla gindi yàlla na yàlla gindi di bigam nag Sonko respect Sonko bigam Sonko one love Sonko ca kaw ca kanam waaw lii la de bopp la de affaire yi xeexu bopp la de xeexu bopp la de du ay affaire u lekk ak naan ak puupare ak saw foo fekk waxtaan puuf fa foo fekk waxtaan saw fa foo fekk waxtaan doxat fa dem sa yoon waaw ñoom ay argument la yor yu solide sax xam-xam macha allah xam-xam daal mooy nit yàlla na yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla sam yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla taxaw big up sonko one love sonko man la Mollah Morgun maa lay big up non non booy doo nit non booy doo nit jàpp grand bi nii grand bi teg ko soog waxtaan kese muy daw rek di la daw non booy booy bàyyil grand bi waaye booy boo jekkoo del baale sonko boo jekkoo del baale dalal <laughs> dimbalal grand bi amul ay argument ay xar lay rek béy ki mbaaxu ko amul argument Sonko Sonko ak bon te mu ne Macky mais ñëwoon ñu tabax ko ñëwoon ñu tabax kaa ñu maye ko Macky naan non booy xoolal dama lay rey de booy doo sa morom booy gis nga moytu ma booy moytu ma non amul ma <laughs> bi bi bu amul woon caawat booy man xaw ma Sénégal nan la ñuy def bi yàlla na ko musal ci cat ci làmmiñ ci musiba ak bala ak xërëmkat yi parce que booy mag xërëm rek lañ xam njabar yàlla na yàlla musal Sonko Ousmane Sonko ci njabaru Macky Sall ak xërëm xërëm ak njabar rek ku amul bopp moom foo fekkee waxtaanu bopp xërëm munoo caa bokk da ngay dem xërëm ak njabar rek seen àdduna dañoo xërëm ak njabar tuuti jàmbur yëpp mi ngi pare xërëm ak njabar rek xonjom xërëm njabar big up Sonko one love àndal ak yàlla rek ku ànd ak yàlla kenn mënu la dara Sonko mooy ki yàlla texeel te ku yàlla texeel mbindeef mënu koo fexeel